asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn jigéen a nii boo xam ni ab américaine la mu yor otoom di génn di dawal ba ci benn route boo xam ne daal route bu wéet la maanaam tëli la boo xam ne dafa wéet lool daanaka kenn nekku fa. muy dawal otoom ba yàgg oto bi daal di paan bi mu gaaree oto bi oto bi daal di paan essence mu dugg ci biir oto bi xool téléphone am ci saagam waaye gis ni dafa fàtte saagam ci kër ga nga xam ni du mën a woo kenn ku ko wàllu. te fi mu nekk wéet na lool. léegi muy xool ba yàgg gis benn waay mu toog ci beg peggu tali bi yor benn téere di jàng. bi mu xoolee waa ji nag gis waa ji yëre yim sol ak melokaanam mu yaakaar ni kii daal ku ñàkk la koo xam ni amoon awma benn yaakaar ci ni mën na maa dimbali ndax comportement wam bii daal yaakaaruma ni dina mën a taxaw ci sama situation yi nga xam ni moom sax ñemewul waa ji bu baax léegi nag bi ko waa ji gisee daal di ñëw ci moom. daal di koy nuyu jàmm sante ak moom. waaye soxna si moom dafa foog ni waa ji ab bànd la rek maanaam ku jëmul fenn nga xam ni bi ko waa ji nuyoo ba tey taxul mu ñeme ko daal di koy gën a ragal. waa ji di ko laaj ndax da soxla ndimbal soxna si ni ko déedéet. waa ji daal dem toogaat continué yow téeréem ba di jàng. waa ji daal di toog toog ba yàgg daal di gis ndaw si ak comportement wam mu daal di ñëwaat ci moom daal di xam ni kii daal ku soxla ndimbal la ba tey mu ñëwaat di laaj ndaw si ndax da soxla ndimbal. ndaw si ni ko déedéet waa ji daal di continuer moom rek daal ko ci sono lool léegi nag ndaw si daal di koy mujj wax ni damaa dawal ba fii daal sama oto bi panne dafa paan essence waa ji daal ni ko ah kon toogal ci oto bi xaar ma tuuti rek ma ñëw waa ji daal di dem fekk na yoroon na benn pot boo xam ni defoon na ci tuuti essence mu daal di koy indi daal ko ci solal waaye nag essence bi mu yor toxu koo bari lool fekk na moom waa ji yoroon na tuuti xaalis mu daal koy génnee jox ko ndaw si di ko xamal ni dey lii rek laa fi yor ci xaalis boo demee ba ci station bi ngeen njëkk a jot nga daal ci sol feccali ko xañ na dana la mën a yóbbu ba sa kër. waaye taxul ndaw si jël xaalis bi daal di lànk rek ni du ma ko jël waa ji di ko xamal ni xaalis bii dey liggéeyu ma ko nit ku baax moo fi jaar rek daal di ma koy jox te sàkkumu ko sax ci moom kon mën nga koo jël. ndaw si daal di mujj yéemu ci waa ji lool ci lii mu ko defal mu daal di mujj koo jël daal di dem ba daal di toog ab diir daal di dogu ni dina ñëwaat ci waa ji benn bés ndaw si daal di fay dellu si fekk fa waaja mu toog yor ab téere ba tey di liir ndaw si indil ko ay xéewal daal ni ko li nga defoon keroog lan nga si jublu ak téere bii nga yor di jàng moom ban téere la waa ji daal ni ko téere bii dey mooy alxuraanul karim daal di ni ko man dey am ndaw laa boo xam ni Afrique laa jóge ñëw fii ngir ut liggéey waaye ba tey day toxul ma am liggéey waa ji di wax ndaw si ni ko teyit it suñu borom daf ñoo xamal ci téere bi ni heure bu sa moroomu jullit soxlaa ndimbal na ko dimbali kon suñu borom dana la dimbali te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa wax ni képp ku wuññil njàqare sa moroomu jullit suñu borom dana wuñ sa njàqare te képp ku suturaal ab jullit suñu borom dana la suturaal ëllëg yamal xiyaam ndaw si daal di mujj yéemu lool ci lii kay waa ji xamal ndaw si bi mu demee këram daal di publier histoire waa ji ci compte Facebook am ak di ko sàkkul ndimbal nit ñi daal ci yéemu lool daal ko ci envoyé xaalis bu baree bari ci kontam am moom ndaw si ngir mu dimbali ci waa ji mu mujj sax jëndal ci waa ji kër waa ji mujjee am liggéey am li mu doon sàkku lépp dem na sax ba ndaw si moom ami Facebook am yi mu am yëpp daal di ni ko dañoo bëgg ànd ñëw nga présenté ñu waa ji ngir ñu gën koo teral gën a xamante ak moom bi ñu dajaloowee nag waa ji ñëw di waxtaan ñoom ci mbiri diine ba ñu baree bari si ñoom daal di mujjee tuub dugg ci diina lislaam ba ci ndaw sii sax dafa mujje tuub dugg ci diina lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn waaye nii boo xam ni mu ngi tudd Abu Nasri As-Sayyad nekkoon ab rëbbkat doon dund ci ak ñàkk gu tar lool moom ak njabootam soxnaam ak doomam benn bés soxnaam si ak doomam ji di jooy jooy yi metti ngir lan amuñu lu ñu dundee xiif gu tar daal di leen di dikkal mu daal génn di dem daal di am njàqare lool ci la dajeeg benn waay waa ji mu ngi tudd Ahmad ibnu Miskin bi ñu tasee Abu Nasri Assayaat mii di ko wax dama am njàqare Ahmad ibnu Miskin di ko xamal ni loolu daal jurul wax ju bari yow daal topp ma rek ñu dem ci géej ga bi ñu demee ca géej ga Ahmad ibnu Miskin daal di wax Abu Nasri Assayaat mii daal ni ko da ngay julli ñaari raka daal di tudd li nga mën a tudd ci baat yàlla yi ngir sàbbaal ko bi mu paree mu dal ni ko da ngay wax bismillah daal di sànni sa mbaal gi ci géej gi bi ko Abu Nasir yi as-Sayyad defee daal di napp jën wu rëy rëy daal ni ko léegi nag da ngay dem nga jaay jën wi nga daal di si ut loo dundalee sa njaboot Abu Nasir yi daal di dem daal di koy jaay daal di si jënd ñaari fataaya yoo xam ni benn bi fataaye bu am ndawal la bi ci des doon fataaye fëriñ maanaam daal mu doon ay fataaye yu neex lool abu nasr mii di dem wuti këram ngir yóbbul leen fataay yi mu jënd ngir ñu dundee ko daal di kontaan lool ci la dajeeg benn soxna daal di ànd ak doomam ci yoon wi soxna si di jooy moog doomam ji dañoo xiif xiif wu tar te amuñu lu ñu dundee. daal di taxaw daal xalaat gis ni ñaari ñii di jooy ak doomam ak soxnaam sama bàyyi sa kër ga ñooy am même situation. mu daal di xool soxna si ak doomam ji daal leen yërëm lool. daal di leen daal di leen mujjee jox fataay yi ngir ñoom ñaar ñu dundee ko. léegi nag bi mu leen joxee euh, fataay yi ndaw sii doon jooy ak doomam ji mu dajaloon ci yoon wi ñoom ñaar ñu kontaan lool. Abu Nasri daal di gis ni ñoom ñaar seen rankoñ fer na soxna si tamit doomam ji daal di kontaan lool. moom Abu Nasri mii daal di am njàqare lool jëm ca këram ndax bu demee xamatul lan la war a dundalee ak njabootam te bàyyi na leen ci situation bu metti ñuy jooy ndax xiif gu ci yoon wi da dajeeg benn waaye boo xam ni mu dégg waa ji di wax ni ana abu nasri assayaad di ko ko laaj abu nasri daan ni ko man dey maa ngi nii maay abu nasri assayaad waa ji daan ni ko yow dey sa baay dafa ma lebaloon xaalis bu baree bari ginnaaw moom génnee àdduna ba léegi nag maa ngi wër doomam ngir fay ko alal joojee waaye boobu ba léegi daal mënuma woon fexe ba teg bët lu taq ci moom. waa ji daal di jox abu nasr mii alal ji mu nekk alal ju baree baree bari moom Abou nasari fa jaaree am alal lool continué di dimbali néew gu doole ji nga xam ni moom Abou Nasri as-Sayyad daan na faral di def bis bu ne mu génnee ci alal ji lu tolloog téeméeri dërëm ngir saraxe ko nga xam ni buñ ko doon wax ci jamono ji daanaka toll na ci lu mat ay 500000 wala sax ba ci 1 million. ci noonee lañ nekkee moom Abou Nasri as-Sayyad benn bis mu tëdd di nelaw dal di gént yamal xiyam daal di jot ñuy peese balaas yi maanaam di peese jëf yi. ñu daal di koy woo moom Abu Nasri Assayaad mii bi ñu ko woowee daal di daal di koy laaj ana ay jëf yu baaxam daal di teg lépp alal mu daan saraxe par bés ak dimbali gi mu daan dimbali néegu doole yi ñu daal di teg lépp ci balaas yi daal di tamit teg ay ñaawteefam ñaawteefam yi daal di wat jëfam yu baax maanaam bi ñu tegee ñaawteefam yi bi ñu ko peesee ñaawteefam yi daal di ëpp lépp mu ngi xewee ci biir géntam gi mu daal di jaaxi lool foog ni moom day dem sawara ñu daal ni ndax moom am na lu mu desee ñu daal ni desee na am na lu mu desee kay ñu daal ni benn bis romboon na ñaari néegu doole daal leen sarax ñaari fataaye bi ñu tegee ñaari fataaye yi nga gis balaas bi daal di tolloo maanaam ñawteef yi ak jëf yu baax yi daal di tolloo ndax des na dara ñu daal ni ronxoo ñu ndaw soosu ak doomam ji doon jooy ba abon nasri mii gis leen daal leen yërëm ba jox leen fataaya yi ñu daal koy jël daal di koy teg jëfam yu baax yi daal di sut tuuti jëfam yu bon yi ndax des na leneen waawaw ndax xale bi bi mu ko joxee fataaya bi moom aboon nasri xale bi dafa kontaanoon lool ba daal di muuñ daal di balaase wu nga xam ni jëfam yu baax moom moo ëpp ay jëfam yu bon kon mbokk ab jullit dafa war a def lu baax rek te bañ a ragal comme ni mu def nii ndax xam na ni ak njabootam mu ngi leen bàyyi ci ak xiif gu tar lool lii mu jotoon a am mu daal di koy joxe te yàlla rek tax te aju ko ci lu dul wakkeerlu ci yàlla te yaakaar yàlla lii mu def tax yàlla muccal ko ci muccal ko ci yomal xiyaam xiyaam lii ab waay la woon boo xam ni dafa amoon soxna soxna su baax lool bëgg ko lool toujours muy def loo xam ni day dab bànneexu jëkkëram ngir bëgg gum ko bëgg soxna si di makiyaasu wala di defaru ngir dab bànneexu jëkkëram saa su ko defee rek waaye jëkkër ji du ko faale. waaye soxna si musta décoration saa su ne muy def loo xam ne day bëgg jëkkëram ko gisee bu bëgg lool waaye jëkkër ji gisul loolu da koy dimmooyu mel ni ku ko bëggul. benn bis soxna si dem taxawaat ci seetu ba xoolaat boppam dem jëndi ay matériel yu bees ngir ni tey bu defaroo jëkkër ji dana ko faale dana ko gis. waaye it mbokk yi ba tey taxul jëkkër ji gis loolu da koo gën a toroxal gën koo mere daal di koy bëccëngal si jamono yooyu rek soxna si daal di mer lool am lu ko naqari lool. guddi gi yëpp soxna si nelawu dara nelawu njàqare rek la doon nelaw. waaye ba ñu xëyee fekk na boroom kër gi am na liggéey bu mu doon sàkku am examen bu mu doon def ngir mën a am loolee. fekk na it defoon na examen bi yëpp maanaam laaj laaj mboolem laaj bu ñu ko laajoon tontu na ko def na li mu war a def lépp am confiance lool ngir ne dina mën a jàll ci examen boobu. mu xëy dem di jëli résultat yi ba yàlla dogalee ñu siiwal ko nag moom amul mu toog di jooy jooy yu metti lool kenn si ñu mu doon defandool examen te mu am. mu gis ko ni muy jooyoo jooye jooy yu metti lool mu ni man de bu gaa yi nangu woon ma jox kee sama place te man ma ñàkk. léegi moom mi mi nga xam ni moo doon toroxal jabaram bi mu déggee waa ji di wax loolee ni bu ñu nangu woon kat ma jël sama place jox ko ko te man ma ñàkk mu daal di xalaat ni man mii kat li tax at wu ma toroxal gi ma daan toroxal sama jabar moom rek moo ma xañ li nga xam ni moo tax ma ñàkk examen bii. ci noonee rek ba muy ñibbi këram mu daal di jëndaale ab kado daal di dem daal di jéggalu soxnaam jéggaloo mu daal nekkaat ci jàmmam mbokk yi loolu liñ ci mën a déggee rek mooy ñu fonkaat suñu soxna yi bu baax te bañ leen di toroxal. ndax am na lu bëree bëri lu ñu mën a xañ ndax soxna yi nga xam ne dañu koo indil suñuy kër dañu koo jox rek ngir ñu mën leen a teg si yoon wi nga xam ni mooy yoon wi gën ndax dañoo bàyyi bàyyi bàyyi yaay ñoo fekk si suñu kër yi kon mbokk yi ngalawaay. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn waaye ngi nii boo xam ni. ab docteur la nekkoon ku baax lool daan liggéey ci benn hôpital benn bis mu jënd ay fleur ngir dem ci hôpital ba di nemmeeku ñi nga xam ni ñoom la fa nekkal di liggéey bi mu àggee ci hôpital ba muy wër néeg yi nga xam ni ci la maladie tëdd ngir di leen nemmeeku ak di leen ñeewantal ci la duggee ci benn salle fekk fa benn góor goo xam ni mu ngi màgget ba pare daal di sonn lool ci la laajee benn soxna bu fa ne di ko xamal ni waa kii moom lan moo ko dal soxna si di ko xamal ni kii dey nekk na fi lu ëpp at waaye boobu ba léegi day jàmbat day sonn rek di jooy saa ne te bis bu ne nii la dëkkee ak ñun di jooy rek. docteur bi daal di toog ab diir waa soxna si ni ko waaw ndax kii da koo xam docteur bi di ko xamal ni kii day xam naa ko bu baax. ndax ginnaaw yàlla sama papa bi muy génn àdduna kii bokk na ci li ko sabab. da koo jaayoon ak kër daal di si njuuj njaaj dem defar ay faux papier ba ñu ko yóbbee tribunal di ko àtte mu daal di seede ay fen. loolu métti woon na sama papa ba daan na ko fàttali ak di ko waar di ko xupp ngir di ko ragalloo daan ko fàttalee xaddis bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko waxoon ni wattandiku leen ñaanu ku ñu tooñ waaye loolu lépp taxul woon mu bàyyi ko xel ba ginnaaw bi sama papa daal di génn àdduna te it moom mi bokk na ci ñi sabab man ak samay mbokk ak samay mag ak samay rakk ñu génn ci dëkk boobu nga xam ni fa lañ juddee màggee fa yaroo fa ci noonee nag ci la àndoon ak sama woyjuru jigéen daal di dem ci suñu village waaye diir bi ñu fay nekk lépp saa yu suñu xel demee ci moom rek dañuy wax ni yàlla rek ci moom la ñu wéeru yàlla doy nañu wéttal docteur bi di wax ku jigéen ki ba tey ni ko te it moom yëmul woon ci loolu rek ndax daan na tooñ ñum daan bokkal di liggéey ñu mel ni sama pàppa ci la duggee ci saal bi nga xam ni fi la góor gi tëdd góor gi daal di xool docteur bi daal di koy xàmmee ci la commencé di jooy góor gi di xool docteur bi ba yàgg di ko xamal ni man de xam naa ni tooñ naa la te tooñ naa sa way jur te yemuma woon sax ci loolu daal naa def képp kuy jéem a tolloo ak mbagg man wala képp kuy jéema a sutanteeg man mbagg ma daal di lay faagaagal dawuma la may dara. ndax yàlla dafa saxal sama xel ngir ma di ko fàttaliku. waaye mu saxal ngir tooñ yi ma daan tooñ jaam ñi may dund mbugalum àdduna daan naa digal samay doom ngir ñu jël alal ji nga xam ni dama ko nangu woon ci ak tooñaange ngir delloo ko seeni borom waaye ñoom nanguwuñu woon loolu dañoo profitoo ci sama feebar bi daal di may génnee sànni ma ca àll ba daal di jël alal ji di ko jëfandikoo waa ci noonee nag ci la ma benn waay jëlee xaw ma ko mu daal di may indi ci hôpital bii waaye boobu ba léegi maa ngi fi di dund dund gu metti di naqarlu ci sama xol feebar yu baree bari dajaloo ci sama biir xol. am na sax diabète am na ulcère mboolem xeetu feebar yu bon yu ne dajale naa ko ci sama biir xol bi ñu di ma ci faj ba tey mënumaa wér. sunu borom bàyyi na ko fi ngir may fàttaliku mboolem lu bon lu ma mas a def jaam yi ma ko yëg ci sama biir xol mu may metti lool. waaye bàyyi fi sama xel ak sama xol ngir man maa fay jëf may naqarlu ci àdduna mboolem lu ma defoon doomu aadama ci lu ñaaw lii may dund dee sax moo ko gën ndax sama njaboot bàyyi nañ ma ginnaaw mboolem ku ma amoon war nga ma ginnaaw te fii mu ne nii maa ngi nii di jànkonteel ak mbuugalum àdduna ci mboolem lu ma defoon ci lu ñaaw maa ngi koy gis te mbuugalum yomal xiyaam ñëwagul dal ko bu mu doon tey dey mboolem lu bon duma ko sax jéem ba di ko def ci la docteur bi jooye jooy yi metti dal ni ko man dey jéggal naa la lépp loo mu defoon te it xam naa ne sama papa dana la jéggal waaye benn pexe rek moo am mooy nga jug ñu dem mboolem koo defoon lu ñaaw nga daal di koy jéggalu te xam naa ne ñoom ci seen ay xol yu rafet ak ci seen yërmande dañ la jéggal mboolem loo leen defoon te boo paree nga jéggalu sa boroom ngir mu jéggal la mboolem say bàkkaar ci la waajee daal daal di préparé ngir ànd ak docteur bi ngir dem ci képp ku mu tooñoon daal di koy jéggalu. kon mbokk yi histoire bi li ñu ci mën a jàngee bëri na lool ndax jaayante doole gi bëri na ci réew mi lool. réew mi gis nañ fi ñoo xam ni dañ leen di jaay doole jël seen alal ba ci ñi nga xam ni sax seeni waajur dañuy génn àdduna bàyyi leen alal seeni mbokk profitoo jaay leen doole jël alal ji ba tey ñoom ñu tumranke lool. nañuy xoolaat suñu jëflante suñu diggante ak nit ñi nañuy rafetal suñu diggante ak nit ñi ci lépp nag kenn ku nekk war naa bàyyi xel bés bi la sa borom di taxawal nga war a leeral sa dund gi ci li nga ko paase. kenn ku nekk ci ñun mu fay la sa jëf waaye yàlla na nu yàlla àtte ci yërmandeem asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn soxnaa ngi nii boo xam ni ab jàngalekat la woon waaye amoon na ñetti doom yoo xam ni da leen a bëggoon lool. ba tax na daana faral di leen jëndal ay yére yu rafet lool ak ay lekk yu neex di leen faral yóbbu ci barab yi nga xam ni dañ fay daan foo ngir daan fa féexloo daan fa faral di dalloo ñoom xale yi daan leen fayal xaalis bu baree bari. saa su ne mu daan nekk ak ñoom di toog ak ñoom di seetaanandoo ak ñoom ay filmo rawatina ay filmu Mickey ngir bëgg gu mu leen bëgg waaye loolu nag teewul seetlu woon na ci ñoom doomam yi benn dëgër bopp gu nekk ci ñoom ndax léeg-léeg bu masaan yëg ak tawat ci boppam maanaam bu masaan a feebar ñoom daal day mel ni seen yaay dara jotu ko ndax dañuy continuer nekk ci kër gi di fo nekk ci seen bopp duñu sax yéeg ni seen yaay feebar na ñaareel ba itam buñ masaan a jàppante ci seen biir ñoom doomam yi bu leen seen yaay daan atte duñ ko faale daawuñu sax topp ay ndigalam bu nee diw toogal wala diw toogal duñ ko lijjanti seen yaay ji dem na sax ba di leen xupp di leen xamul ne daal bu ngeen réglé wul danaa génn kër gi. loolu yëpp taxul mu am solution. bi mu demee nag ba jaaxal ba jaaxle benn bés muy jàngale ba toll ci xaddis bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax ni kenn ci yéen ak ngëmum du mat lu dul nii la bëggal boppam da bëggal moroomam. bi mu leen waxalee xaddis boobu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom fas yéene koo jëfee. bi ñu delloo seen kër kenn ci ñi nga xam ni moom la doon jàngal koo xam ne ñu ngi koy wax ala bi mu demee seen kër dafa wax ni yaayam dama bëgg nga jëndal ma ak muuraay bi ko yaayam jëndalee muuraay gi moom aala mu daal di teg benn leetar daal di si bind ni yow sama meetar maa ngi lay ñaan nga sol muuraay gii bi mu ko bindee daal di koy def benn kado daal di ko koy jox bi mu ko ko joxee mu daal di koy sol daal di ñëw ci classe ba ngir jàngal si leen élèves yëpp di ko delloo njukkal ngir ni boobu mooy bis bi mu njëkk a muuru daal di mel melokaanu jullit moom maître bi loolu daal koy def kaa daal di wax aala mi nga xam ni moo ko jox kado bi daal di yono dama bëgg nga wan ma seen kër su ma amee jot ma daal di fay doxantu si daal leen di siyaar si benn bis mu daldi dem kër ñoom aala bi mu duggee waa kër gi daal di koy dalal bu baax a baax bi mu duggee kër ñoom aala ba toog ñu dalal ko bu baax bi ñu toogee ñoom ñëpp rakk aala ju ndaw ji daal di ñëw daal di toog ci yaayam te mooy yaayu aala daal di jàpp ci mbubbam mi muy wax yaayam tey day tabaxaguñ kër ca aljanna yaayam ji te di yaayu aala di wax rak doomam ji ni ko wax nga dëgg day après ci ñoom ñëpp ñu daal di maase jàng suratul fatiha ba muy fukki yoon. bi ñu paree ñoom ñëpp ñu maase wax ni ñu ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ñu may tey ñu tabax kër sa aljana. bi ñu noppee ñu daal di ni kër day ku ko tabax dinga am loo fa def ci lañuy ñu maase ñoom ñëpp daal di maase sikar daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di ñaan. bi ñu noppee nag ñoom waa kër gi kenn ku nekk daal di delluwaat ci sa liggéey moom aala mu daal di dellu di jàng ay leçon am rakkam ji daal di delluwaat ci ay fowam seen yaay tamit daal di continuer di waxtaan ak maître bi maître bi di ko xamal ni yow day jaaxal nga ma ndax sa njaboot gii noo def bañ mel nii yaayu aala mii di xamal maître bi ni ko man dey sama njaboot dañoo bëgg di toog ak man saa su ne waaye heure bi ñu toogee man damay faral di leen wax ñuy tudd yàlla sunu borom ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir leeru yàlla daal di nekk ci ñoom di leen xirtal ci lu baax moom maître bi si la xamee ni li tax ay doomam yarewuñ daal mooy bu toogee ak ñoom du leen tuddal ay tur yàlla wala ma leen di jéem a yar ci yarub lislaam moom daal da leen di bàyyi ñuy seetaan ay filmu ak di leen yóbbu ñuy fowi rek lii day moo tax samay doom kon yarewuñu ci la xalaatee ni moom day def na njuumte bu baax a baax ci la continuer ngir fas yéene jubbante ak njabootam yar leen ci yarub lislaam ngir ñuy def lu baax di wax lu baax fu ñu mën a toll. kon nag mbokk yi nañu bàyyi xel ni suñu réew mii toll na ci jamono joo xam ni ku yarul say doom ci lislaam danga ko réccu ndax caaxaankat yi bari nañu lool te yàlla sunu borom jox na leen doole ak kàttan dink na leen itam wërsëg wu yaatu lool ku nekk itam xam na ni doom dafa sax ci xol. kon bu la ko yàlla sunu borom joxe na nga gaawantu nga nàmbutal ko ci alxuraan ak sunna te it di ko jëfee ci seen kanam ñu lay gis ndax xale moom lu ma gis ak ay waajuram di ko def rek day jàpp ni loolu mooy li war kon nañu tàggat njaboot gi ci topp yàlla akub yonenteem wasalaamualeykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn soxnaa ngi nii boo xam ni dafa nekk ku baax lool mbokk itam ci famille bu baax lool muy jàng ba génn ci université. ba am ay diplôme yu bari bi mu amee ay diplôme nag ñu daal di koy jël ci gouvernement bi mu am fi benn poste di fa liggéey. waaye nag amul jëkkër. bi mu amee liggéey nag teewul mu continuer am njàngam taxul nag mu kontaan lool ndax li mu amul boroom kër. nga xam ni am boroom kër daal moo ko gën a yitteel sax ci am njàngam. te yitteem yépp daal ci am boroom kër la ko def ndax dese naa kontaan lool. bi mu ko waxee yaayam yaayam daal di muuñ. daal di reetaan di ko xamal ni del bëri looy jéggalu yàlla sunu boroom rawatina ci guddi gi bu ñu demee ba ca xaaj bu mujj ba ngay jéggalu yàlla ak di ko ñaan yaayam daal ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp ku bëri lu muy tuub ak di jéggalu yàlla daal bépp xat-xat boo nekk wala bépp njàqare boo am yàlla dana la ci defal réussir maanaam danga ci génn ci jàmm ak salaam kon nag na nga bëri looy tuub ak di ñaan yàlla sunu boroom mu daal di continuer moom ndaw si di def loolu di julli di ñaan yàlla saa su ne ngir mu may ko borom kër bu baax lool bu gën ci moom itam. saa buy ñaan itam muy faral di wax ni yàlla de bu ma mayee borom kër bu baax danaa ko toppatoo def lépp lu war ci moom sama diggante ak moom maanaam du namm dara. muy continuer moom ndaw si di jàng ak di liggéey yàlla dogal benn waay gis ko bëgg ko ñëw di ko ngoro si di ko xamal ni dinaa la bàyyi. nga ne sam njàng ak sab liggéey duma la ci sonal benn yoon. ndaw si daal di kontaan lool ci li waa ji wax daal di koy nangul waa ji daal di koy takk bi ko waa ji takkee nag ndaw si continuer di jàng di jàng ba am doctorat bi ndaw si amee doctorat ba pare si am njàngam waa ji daal di luyee kër ñu daal di dem daal di fay dëkk ñoom ñaar ñoom ñaar ñuy dem ba sunu borom dogal ñu daal di am ñaari doom seen ñaari doom yi itam toll si am njàng. moom ndaw si nag ginnaaw bi muy amee doctorat mu daal di ne ci liggéeyam liggéey bi gën a avancé lool gën a kawe ba ñu baree baree bari fa ca famille liggéeyee moom moo leen féete kaw. nga xam ni dafa dem ba occupé lool ndax liggéeyam dem ba sax buy ñëw ci kër gi day indaale ay dossiers yoo xam ni dafa jëm ci wàllum liggéeyam nekk ci kër gi yor dossiers yi rek di xool ak di ci liggéey nga xam ni daal moom amatul benn benn temps ba day faral sax di guddee lool. ci dossier yam yooyu li ci nekk. benn bis borom këram daal di ñëw di ko xamal ne lii ngay def de war nga ko wàññi ndax kër gi dafa am àq te sa njaboot gi da leen war a toppatoo da leen war a yar te di leen war a dimbaliwaale ci seenum njàng. ndaw si ni ko man dey damaa amul jot maa ngi ci sama liggéey rek bi ko borom këram waxee loolu ba tey taxul ndaw si moom def ay yitte sax ci li mu ko wax faalewu ko daal mel ni ku ko déggul. benn bis kenn ci doon doon fo ba daal di damm bi mu dammoo nag taxul sax yaay ji faale ko moom daal mu ngi ci dossier mi rek di xool lu gën a avancé liggéeyam. baayam sax mu mujjee bàyyi liggéeyam ñëw ci xale bi di ko toppatoo ba xale bi daal di tane. benn bis jëkkër ji daal di ñëw ci ndaw si daal di mer lool daal ni ko dama bëgg nga tànn soit da ngay tànn sa liggéey bi waxuma la sax nga bàyyi ko waaye nga farlu li war ci sa diggante kër gi ak sa njaboot gi. man mii di sa borom kër toppatoo gi nga ma war a toppatoo ak sa liggéey bii nga tànn ci benn. mu daal di koy xupp daal di koy xamal ni ko boo munta toppatoo sa njaboot gi wala nga def li war ci sa diggante kër gi da ngay bàyyi sa liggéey bi. tey ndaw si daal di bañ faalewul sax li ko borom këram gi wax continuer rek moom nekk ci li mu bëgg a nekk. benn bés ndaw si daal di génn dem liggéeyi borom këram gi daal di jël ñaari doomam yi ak ay bagaasam daal di génn ci kër ga dem ci beneen kër dëkk fa. daal di koy bàyyee ak kër gi. doomam ji nga xam ni sax dafa yoroon téléphone am mu daal di nangu téléphone bi daal koy fay daal di ànd ak ñoom daal di dem tuxu faneen. bi seen yaay wàccee daal di ñëw si kër gi xool xool xool gisul kenn mu daal jël téléphone am daal di woo jëkkëram ji jotu ko daal di woo doomam ji jotu ko mu daal di jaaxle lool am njàqare ci boppam ana ñi fan lañ war a nekk. aussi di réccu di jooy ndax gisatul ak njabootam. gisatul borom këram te xamul fan lañu nekk. ci noonee ndaw si ànd ak jàqare xamatul lu muy def ndax gisatul ñim daan xëy di leen gis benn bis nag borom këram jël téléphone am daal di koy woo xamal ko ni ko damaa toxu damaa nekk faneen man ak sama njaboot ngir di leen mën a toppatoo. borom këram di ko xamal ni lenn rek mooy mën a am benn nga def li la war ci sa digganteeg sa njaboot ak kër gi. ak man mii di sa borom kër boole ko ak liggéey bi wala nga bàyyi liggéey bi def li la war. ndaw si daal di jooy daal di réccul li mu doon def lépp daal di xalaat ni dey lim sàmmante woon ak sunu borom ca ba mu koy ñaan borom kër lépp defu ci dara ndax toppatoowul borom këram toppatoowul ak njabootam mu ngi ci liggéeyam rek yëggalu borom këram daal di li lim doon def lépp. ci noonu la ndaw si commencé waate ngir bëgg a commencé liggéeyal borom këram. ak di toppatoo ak njabootam teewal mu continuer nekk ci liggéeyam yàqalu ko daraam. kon yéen sama mbokki jigéen yi lu liggéey bi bari bari bari bul mas a sàggane ñaar yi sa borom kër ak sa njaboot saxal dàkk ci di leen taxawu saa su ne. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn soxnaa ngi ni boo xam ni dafa nekk jàmbaare lool ci am njàngam. nga xam ni compo bu mu def wala devoir bu mu def rek da ci am ay moyens yu baax waaye yaayam dafa nekk koo xam ni dara yitteelu ko ci lu jëm ci lu baax du julli du def dara loo xam ni lu baax la te dara waru ko lu dul ay àndandoo yoo xam ni dañuy dajaloo di waxtaan ay waxtaan yu neex ak di jëw di dugg ci lu seen yoon nekkul di génn di def ay sorties di dem ak ñëw maanaam ñoom daal dara lu baax yitteelu leen moom yaay ndaw si ak àndandoom yooyu. benn bis ndaw si daal di dem ci école ba daal di jàngi kenn ci responsable yi nga xam ni ñu jiite école bi daal di gis ndaw si woo ko. ni ko yow day fan yi gis naa ni sa moyen yi nga daan am dafa wàññeeku lool. te yow da jàmbaare lool lan moo waral note yi nga daan am amutoo ko waaye ndaw si taxaw rek nanguwu kaa tontu ba ci yàgg ndaw si commencé di jooy di jooy jooy metti waaye nag mu kont ne di ko ci sonal lool di ko laaj ba ndaw si demee ba sonn ba sonn nag ndaw si daan ni ko man de sama sofooru baay bi nga xam ni moom la ma sama baay booleel ngir mu di ma jël si di ma indi ci école bi. may jàng si ak di ma yóbbuwaat ca kër ga. dafa nekk koo xam ni dafa doy waar lool ndax léeg-léeg bu may indi ci école bi wala bu may delloo dafay jàdd ak man ci oto bi foo xam ni fu wéet la foo xam ni kenn nekk fa ngir di ma làmbatu ak di ma def yu kenn xamul. daal ni ko te ba mu ma ko njëkkee def ba ma ko waxee sama yaay sama yaay daf ni ma bul ko wax sa papa benn yoon. bàyyil noonu rek ndax boo ko waxee sa papa fi mu toll nii dafay dàq chauffeur bi te chauffeur bi moom di génn saa yu ma neexee. bi mu waxee loolu responsable bi nga xam ni ci école bi la nekk daal di jël téléphone am daal di woo yaay yaay ndaw si. bi mu woowee yaay ndaw si di ko expliquer yaay ndaw si ni ko ah sama doom jooju daal gàcceel na ma. ndax dañoo soxla sànq gu mel ni xeeti safoor bii. yaay ndaw si ba tey muy wax ak. ku jigéen kii nga xam ni responsable la ci école bi dal ni ko te it bul woo bàyyam benn yoon ngir di ko ko wax ndax boo ko ko waxee day dana ko dàq te bu boobaa dootuñu am occasion ngir di ma di mën di génn ci waxtu yu ñu neexee ak saa yum ñu neexee waaye ba tey taxul soxna su jigéen si nga xam ni moom responsable la ci école bi bàyyi benn yoon dafa daal di jëlaat téléphone am fa saase daal di woo papay ndaw si ngir expliquer ko bi ni mu demee. papay ndaw si bi ko ko soxna si waxee mu daal ci mer lool daal di dem fa saase dem dàq waaja nga xam ni moo nekkoon chauffeur ba. daal di koy delloo fa nga xam ni fa la ko jëlee woon. léegi nag mu daal dem ci yaay ndaw si di ko yedd ak di ko xamal ni lii nga def de baaxul tey baaxul suba te xaw lu tax nga def ko waaye woy jur wurul taxawee nii ci ak njabootam. daal di koy yedd xamalaat ko moom mooy kan ba yaayu ndaw si daal di commencé réccu li mu doon def lépp mu daal di tuub commencé baax ak di julli nga xam ni àndandoo yu bon yam amoon yëpp da leen a mujjee bàyyi moom yaayu ndaw si daal di dem utiwaat yeneen àndandoo yoo xam ni ñu baax lañ lool ñoo xam ni lu baax rek rek moo leen ñor. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi li benn histoire la boo xam ni dafa doxoon ci diggante jëkkër ak jabar ñoom ñaar bi suñu borom daal di dogal soxna si daal di yëg ci biiram ni moom daal dafa ëmb. ba mu demee nag daal di koy wax boroom këram bi ko boroom kër gi yëgee daal di sant yàlla lool daal di ci am mbégte ak contentement. di ñaan yàlla suñu boroom mu dogal daal di wasin ci jàmm ak salaam. bi ñu demee nag ba jabar ji di bëgg a wasin jëkkëram ji daal di koy jëlal médecin boo xam ni spécial la maanaam médecin boo xam ni da koy toppatoo di di seet yaramam fu mu toll. waaye dafa nekk médecin boo xam ni day wore day naxe di teg diil malade yi ak di garaawal seen feebar yi ngir ñu ko ci fay alal ju baree baree bari. bi mu xoolee soxna si nag di ko xamal ni day yow doo mën a wasin normal ndax ndax sa doom ji kat butit yi ak baat bi dañoo jaxasoo ci biir faaw mu am traitement yoo xam ni moom lañ lay defal te ci kaw loolu faaw nga joxe ci xaalis bu baree bari ba doom ji mën a judd ci jàmm ak salaam bi boroom këram gi ñëwee nag soxna si di ko nettali li ko médecin bi xamal di ko wax nii day médecin bi nee na sama doom jii duma ko mën a wasin ci noonu ndax faw ñu opéré ma ngir ma mën a wasin ci jàmm. jëkkër ji di xamal soxnaam si ni ko yow day boo xamoon li ma daj pour fayal la ñu mën laa indi ci clinique bi danga naan déedéet. daal ni ko xaw daal man fan laay amewaat alal joo xam ni dina la ci mën a fayal ñu mën laa opéré ndax alal jii ma la doon fayalee kat laataa ma koy am sonn naa ci lool. fekk na benn médecin bu jigéen moom mu ngi leen dégg bi mu leen déggee ñuy waxtaanee loolu nag loolu daal koy def njàqare lool ci diggam ak boromam ci responsabilité bi ndax bu leen waxul dëgg gi ci bu xamalul waa ji ni ko sa soxna sii de mën naa aussi normal waa ji da leen di nax rek loolu def ko njàqare lool mu xalaat diggam ak boromam. médecin bi jigéen bi nag daal di risque rek ni daal fawuma ma xamal leen dëgg bi daal di ni donte ne xam naa ne sax bu ma leen ko waxee dinañ ma dàq ci clinique bi ci fa may liggéeyee. waaye daal danaa dëgërloo rek wax leen dëgg gi mu daal di fàttaliku xaddis bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko dafa waxoon ni képp kuy sàkku ndimbal nanga nga sàkkoo ndimbal ci yàlla te képp kuy ut foo dëgërloo daal na nga dëgërloo ci yàlla bu àdduna bépp daje woon ngir bëgg laa lor te yàlla sunu borom nëmmul ngir ñu lor la duñu la mën a lor bu àdduna bépp daje woon itam ngir bëgg laa jëriñ te yàlla nëmmut ñu jariñ la duñ la mën a jëriñ nag ci la dëgërloo daal wax ndaw si ni ko fi mu toll nii day waa ji da lay nax rek mën ngaa wasin normal. ci lu dul ñu lay opérer mu daal di ni ko dangay dem ba ci médecin bi nga ni ko dama bëgg dem ci yeneen hôpital yi gën a simple ngir ma mën faa wasinee ndax lii ñu may laaj ci alal mënuma ko te yoruma koy tam. daal ni ko boo fa demee rek bu ñu la seetee di nga gis ni da nga mën a wasin ci jàmm ak salaam ci lu dul ñu lay opéré. te xaalis bu bëri bii nga ci naroon a ñàkk doo ko ci ñàkk. si jamono jooju rek bi médecin bi taxawee di waxtaan ndaw si ndaw si jékki-jékki yeeg ci biiram biiram bi di commencé metti jëkkër ji daal di génn daal di koy bàyyeeg médecin bu jigéen bii ci la daal di wasinee foofu médecin bu jigéen bi daal di koy toppatoo ba mu wasin si jàmm ak salaam defal ko li war ci moom yépp jëkkër ji daal di toog ba yàgg daal di dégg xale bi di jooy mu daal di xam ni kat soxnaam si wasin na si jàmm mu daal di ñëw daal di sant yàlla lool ànd ak mbëtte mu yaatu médecin bu jigéen bi di xamal ndaw si ba tey ko lii day laa la doon wax fi mu ne yaa ngi nii wasin nga fii ñu doon waxtaanee te yaa ngi ci sa jàmm ba tey médecin bi tamit yëgu si dara. ci ginnaaw loolu nag ñu daal di dellu ci seen kër bi mu amee ab diir ba ñu àggee ci kër ga di nettali waa kër gi ni histoire bi demee di ci waxtaan ak ñoom. ci médecin bu jigéen bi jëf ju baax ji nga xam ni def na ko taxawu leen ba ñu nekkaat ci seen jàmm. ci bi ñuy waxtaan nag fekk na am na benn xale bu góor bu fa nekk boo xam ni moom mu ngi toll ci diggu dooleem bu ndaw la mu daal di bëgg soxna ci loole nag la waxtaanee waa kër gi ni leen kooku dey médecin boobu dey danaa ko dem takk ko def ko sama soxna. te fekk na médecin bi moom magum jëmmu la demoon na ba ñàkk yaakaar ji boppam ni dootul masa amati jëkkër ndax làq na ay at yu baree baree bari far waa ji daal moom daal faaw mu dem ngoro ji ko ngir takk ko def ko soxnaam. ginnaaw bi nag waa ji daal dina koy takk bi mu ko takkee médecin bi commencé takk fitam daal ni waa daal dinaa ko boole ci lu bon lii muy def donte ni sax man nañ ma cee dàq waaye buñ ma ci dàqee de ñoom ñoo xam waaye dinaa takk sama fit dem boole ko. comme que moom magum jëmm la woon demoon ba ñàkk yaakaar ji boppam ni dootul ma sa amati boroom kër te liggéeyam bii may na ko tey mu am borom kër. léegi nag mu daal di dem ba mu demee ci directeur bi gën a mag ci hôpital bi. daal di boole waa ji ci lu bon li muy def ci saa yu fi malade dikkee muy xamal nit ñi mu leen di xamal ni day faaw dañ la opéré wala daal di garaawal sa feebar ba nga jox ko ci alal ju bëree bëree bëri lii de moom lay def. di lekk seen xaalis te fekk na seen feebar yi mën nañ koo faj. ci lool nag ci la boole waa ji bi mu boole waa ji nag ñu daal di dàq waaja moom mu continuer di liggéey ci hôpital ba. ñu daal di yokkal salaire am daal di koy defal ay teranga yu bëree bëree bëri. kon mbokk yi nañuy bàyyi xel. àdduna ak taaram bii ndax du kër gu sax balaa mu ñuy wor. yàgg yàgg dañu fiy jóge te ragal yàlla ci lu nëbb ak lu feeñ moom rek moo la mën a may ndam ci àdduna ak àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kii benn soxna la boo xam ni boroom këram dafa génn àdduna bàyyi ko fi mu néew doole lool waaye nag muy liggéey di jaay ay fruits di ci fayal doomam ji muy jàng doomam ji di jàng ba yàlla dogal mu génn ci université boo xam ni wàllu médecine la ñuy jàngale yàlla dogal itam mu am boroom kër mu nekk ci benn hôpital di fa liggéeye waaye hôpital bi nag dafa jege kër yaayam maanaam hôpital bi ci wetu kër yaayam la nekk. waaye moom ndaw si daan na bàyyi xel lool sonn gi nga xam ni yaayam sonn na ko ci moom ba daan ko fayal muy jàng mu bëgg yaayam lool di nekk si jàmm waaye nag yenn saay ay kàddu yu ñagas dox si diggam ak yaayam léegi léeg daal moog yaayam ñuy faral di jokkalante ay kàddu yu ñagas ngir rek ni yaayam moom daa mel ni daal ku xaw a texet dëkkandoom bu ñëw rek dal ni ko sama doom ji dafa feebar wala moom mu feebar rek mu ne ko yóbbu ko ci sama hôpitalu doom ji boo demee nee ko man maa la yebal bu la laaj dara bu nekkee it koo xam ni dafa am ordonnance boo xam ne mënu koo fay mu yebal ko ci ñu ko demal ci sama hôpitalu doom ji benn bis benn màgget mu jigéen daal di ñëw ci hôpital bi ànd ak doomam bu góor ndaw si daal di seetlu lool ni xale bu góor bi toppatoo yaayam di ko jox mu naan ak di ko defaraatal musóoram gi di ko téye bu baax ndaw si daal di laaj xale bu góor bi ni ko kii ndax mooy sa yaay xale bu góor bi ni ko waaw ban feebar moo ko dal xale bu góor bi ni ko moom daal feebaru xel moo ko dal. ci noonee rek mère bi daal di wax doomam ji góor ji daal ni ko ndax bu ñu demee di ma jëndal banaana xale bu bi daal ni ko waaw yaay. mère bi daal kontaan lool bi mère bi reetaanee rek doomam ji góor ji daal kontaan moom itam daal di bég lool moom it reetaan ndaw si di laaj waa ji ni ko lan moo tax nga bég bay reetaan waa ji ni ko bég gii sama yaay bég bay reetaan loolu moo tax ma bég ni ko man sama yaay mbégteem rek mooy sama mbégte saa yu béggee rek man damay bég médecin bi di wax waaju ba tey ni ko sa yaay ji lii di lii ko dal nii kañ la ko dal waa ji ni ko man daal dippi ba mu juddoo ba léegi daal la ko feebar bi daal daal ni ko moom daal ba mu ma ëmbee rek si la jëlee woon feebaru xelam bii ci la ko jëkkëram ji tamit fase woon te moo nekkoon sama baay léegi man bi ma juddoo nag ba xàmmee ci laa commencé may toppatoo sama yaay maa koy defal lépp ndaw si daal ni ko léegi sax lan moo tax utaloo ko mbindaan ak moom ni mu màggatee nii mu ni ko sama yaay daal moom dafa nekk koo xam ni du jàmmat kenn dara amul benn problème tey damay bañ di ko jëlal mbindaan mbindaan mi di ko sonal tey mën na koo def loo xam ni du ko neex te bu boobaa man duma ko yëg ndax duma ko wax te moom feebar bi ko dal dafa nekk feebaru suukar maanaam moom daal dafa jabeet lii rekk daal moom laay bañ moo tax ma di ko toppatoo sama bopp. ba tey ndaw si di laaj waa ji ni ko xanaa amoo ay rakk yu jigéen waa ji daal ni ko déedéet awma benn rakk bu jigéen. ndax bi ko feebaru xel bi dalee rek ci la ko boroom këram ba fase te moo nekkoon sama baay moom sax dafa mujj génn àdduna. ni ko man day lu ma am. sama yaay ji moo ko gënal moom laa gën fonk ci lu ma mën di am ba ci sama doom yu ndaw yi nga xam ni maa leen jure sama bopp sax sama yaay ji laa gën a fonk ci ñoom ndaw si daal di mujj yéemu lool loolu daal di koy jaaxal lool ndaw si daal leen bindal ordonnance yi ba pare ñu daal di dem bi ñu demee nag mu daal di woo secrétaire am bi daal ni ko waxal ma malaat yi nekk ci bitti ni leen ñu may ma damaa jàpp ba si kanam ndax daal xolom daa fees lool mu daal di tëju ci biroom di xalaat di jooy jooy muy xalaat waajee ni mu sonnee ci yaayam maanaam coono bi muy daj ci yaayam lool ak yaayam ni mu sonnee di daj ci moom ay coono yu méttee métti ak moom mii nga xam ni yaayam yàlla dimbali na ko mu am lu mën a liggéey di jaay ay fruits di ko fayal am njàngam jàppale ko ba mu agsi fii mu agsi mu yërëm waa ji lool ci jafe-jafe yi yaayam nekke nii te waa ji muñ ko ànd ak moom di ko supporter rawatina moom mii nag nga xam ni yaayam moom dara jotu ko te mu góor góorgóorlu ba fayal ko am njàngam ba tey jii nii mu am liggéey nga xam ni deful dara lu dul ni ku néew doole bu ñëwee ci moom mu yabal ko ngir mu dimbali ko kese képp ku ñëw si moom bëgg a faju te amoo fajoo wala nga am ordonnance yoo xam ni mënoo koo jënd mu yabal ko ci moom ngir mu jàppale ko loolu rek nii sama yaay lii rek lay saaku ci man waaye man saa su ne maa ngi xuloo ak moom di di ko ñaxtu loolu nag daal di koy metti lool ba mu ñibbee mu tàmbali di yedd boppam ci ni naka nga mën a amee yaay ju mel nii ak ni mu ma dimbalee di ma jàngal lu baax di ma jàngal ngir may def te yàlla tax di jàppale néegu doole ji ba tey muy fàttaliku xaddis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ni ngërëmal yàlla day mu ngi ci ngërëmal ñaari waajur waaye merum yàlla itam mu ngi ci bu la say ñaari waajur meree loolu nag gën koo soññi saa yu demee ca kër ga di sàkku ngërëmal waajuram continuer di def lu baax ak di dimbali képp koo xam ni dafa néew doole comme ni ko way juróom bëggee woon di dimbali ñi feebar te amuñu fu ñu fajoo kon mbokk yi nañu topp suñu ndigalal ñaari way jur te bàyyi seen ay tere wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kii benn soxna la boo xam ni ab jullit la waaye jullitam gi ci aw tur rek la nekk nga xam ni bu doon lu ñuy bind la daanaka duñ ko bind ci aw këyit rek ndax amul benn jeexital ci moom te xeetu jaamu yàlla yi tamit daanaka du ci def benn farataalul dara ci boppam jullit gi daal autour la noonu rek nga xam ni diineem daal moom xamu ci dara benn bis baayam di vacances yi ci réew Europe yi daal ànd ak moom yóbbaale ko ba ñu yeggee nag mu daal dafay am benn xarit koo xam ni dafa xaritoog moom lool waaye xaritam boobu daan nekk koo xam ne daal gëmul dara moom daal gëmul benn diine bi mu nekkee ci réew ma nag daal di fay nekk dafa continuer di jàng bi mu jàngee ba am ay diplôme ñu daal di koy jël foofu ci réewu tubaab yi ci nguur ga mu fay liggéeyee. bi mu nekkee foofu di liggéey nag am na benn waay boo xam ni ñoom ñaar ñu bokk fi ñu liggéeyee waa ji daal koy gis bëgg ko daal waxtaan ak moom ba ñoom ñaar ñu d'accord mu daal di koy takk. ndaw si bi mu d'accordee pour waa ji takk ko nag dafa tegal waa ji ay sart ni ko bëgguma nga may wax dara ci mbiri diine naa ma defal nii ak nii. daal loolu daal bu ci sa yoon nekk. waa ji daal d'accord ci loolee ngir léegi ni bu àndeek moom xëy na dana soppeeku. ginnaaw bi ñu nekkee di sëy nag jëkkër ji commencé di ko waar saa su ne mu koy xamal ni daal danga war di julli danga war di def say farata ndax ab jullit daal loolu da koo war. ndaw si di ko xamal ni ko loolu day waxante ko woon ndax waxoon naa la bul ma wax dara ci mbiri diine wala nga naa ma defal nii wala defal na le te it yi nga may wax xaw ci dara ndax farataalu ko ci sama bopp. waxuma laak nag di ko jàpp ndax dafa war ci man ak yu kenn xamul jëkkër ji daal di mer lool fi mu toll nii da ngaa ëmb ndax yaa ngi ci sa weeru mujj pour nga am doom waaye bis boo wasinee day dinaa ko lijjanti ak yow ginnaaw bi loolu yëpp jàllee nag bi ndaw si amee doom si ñaari fan ak ñetti fan rek ndaw si daal di yor ab biberon di nàmpal doomam ji bi mu koy nàmpal nag bàyyiwu ko xel soo mi mu ko doon nàmpalee di dugg ci bëti xale bi dugg ci yaram bi yëpp fees dell ci kanam gi ndaw si daal di tiit lool ndax xale bi daa mel ni ko xëj mu gaaw yóbbu ko hôpital daal di ànd këram bii ñu demee hôpital nag jëkkër ji moom di ñaan yàlla rek ngir suñ borom saafara li nga xam ne moom moo dal doomam ji ngir mu wér waaye ndaw si nag moom di jooy rek jàpp ni jooy yi mooy saafara mbir mi yàlla daal di leen di dimbali xale bi daal di wér bi mu wéree nag médecin bi ni leen moom day dafa naroon a faatu ndax nooyi gi moo amoon problème léegi nag bi ñu jógee ci loolu jëkkër ji bàyyi ko lu mat at tàmbali di ko waar par ndànk-ndànk di ko xamal ni sunu borom ku bëri yërmande la kuy saafara kuy wéral la te it ndaw si moom bi jëkkër ji nekkee ci hôpital ba di ñaan yàlla déggoon na ba muy wax naan yàlla rek mooy saafara mbir yi teewul nag moom ndaw si mu dëgër bopp rek continué ci dëgër bopp gi mu nekkoon rek moom waaye xam na ni suñu boroom mooy saafara mbir yi léegi nag jëkkër ji daal di mer daal ko génn sama kër nga dem ci say mbokk keroog ngay nangoo jëf li yàlla farataal ci yow ginnaaw bi ndaw si daal delloo ci ay mbokkam doom ji daal di feebaraat jékki-jékki daal tàngooru yaram wu metti daal di dal doomam ji ñu daal di ko yóbbu hôpital bi ñu ko yóbbu hôpital jëkkër ji daal di ñëw ak ndaw si ak mbokkam yépp ñu dajaloo ci hôpital ba bi ñu ñëwee nag ñu daal di taxaw ci bunt fi nga xam ni fi la ñu entré xale bi yaayam daal di fay nekk ndaw si daal di leen di dégg ñoom ñëpp ñu jaaxle di àndandoo di wax naan ya allah ya allah moom tamit mu daal di jaaxle rek daal di ciy topp rek di wax moom itam di wax naan yaa allah yaa allah ndaw si commencé féex di commencé dal di yëg leerug yàlla muy dugg ci moom loolu nag tàmbali ko waar muy mu daal di ñëw si jëkkër ji di jooy di ko xamal ni day yaa allah ji ma doon wax léegi yëg naa ci ni yàlla ko am la mu di ko wax ni xamee naa ci ni daal yàlla mooy kiy aji melal teyit mooy aji am kàttan mooy kiy aji dundal te it moom mooy notaakon ba ndaw si di wax jëkkër ji ba tey ni ko ginnaaw xam naa li yëpp nag dootuma bàyyeetee sama bopp ak seytaane mu di ma jax-jaxal fas yéene naa tuub daal dellu ci yàlla noonee la ndaw si daal di tuub continuer nekk ci li xam ni moom la ko yàlla digal bàyyi ay tereem tàmbali di jaamu yàlla kon nag mbokk yi bul gis nit nekk ci réer ak di mooy boromam ba tax nga bañ ko yërëm ko rek te di ko ñaanal njub foo toll ndax kat mbokk yi iblis day nax na ku ne wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kii benn soxna la boo xam ni boroom këram da koo fase mu toll ci fanweeri at bàyyil ko fi nag ñaari doom waaye nag soxna si nekk ku baax lool koo xam ni dafa topp njàngaleem diine lislaam li yàlla digle mu topp ko li yàlla tere mu bàyyi ko ñaari doomam yi nag mu ngi leen di dundalee ci salaire bi nga xam ni moom lay am chaque weer donte ni sax salaire bi bëriwul lool. mu nekk ci benn kër nag di fa daan dooleem maanaam nekk fa am mbindaan di fa liggéeye yenn saay nag daan na faral def saa buy dem di liggéeye rek yóbbaale ñaari doomam yi ànd ak ñoom ba fa muy liggéeyee. te moom sax kër ga kër gi mu dëkk da ko luyee benn bis mu wàcc ci étage bi daal di gis doomam ju ndaw ji nga xam ni moom si juróomi at rek la toll. mu gis itam beneen xale boo xam ni mu ngi toll ci fukki at waaye xale ba nag nekk fa di xupp doomam ji bi mu koy jéem a xupp nag mu daal di ñëw daal di leen di laaj lan ngeen jotee waaye muy wax xale bi di ko ñaax di ko xamal ne daal kii moom xale bu ndaw la yaa nga mag muñal ko rek mu daal di bi fan nga dëkk mu daal di ko koy wax mu jëlu ànd ak moom daal ko yóbbu ci yaayam mu ñëw di wax ak yaay xale bi di ko xamal ni dama ko fekk daal mook sama doom ji ñuy jàppande waaye ñoom daal xamuñu dara yëfi xale la rek mu ñëwoon di la ko leeral. waaye soxna si ni ko daal loolu amul benn solo maa ngi lay jaajëfal ci lu rafet lii nga def ndaw si nag di ko xamal ni man sax fii laa dëkk ci kaw dama fee luye sama mag moo fi luye woon ñu daal di fi dëkk boobaa léegi sax daanaka leen mu toll ci weer. mu daal ni ko man sax dama yar ay ginaar boo gisatee foofu lu des loo xam ne dana mën a xont ginaar yi nga indil ma ko. fekk na sax soxna si moom yarul benn ginaar xëy na dafa amul sax dund ko doy gu mu dundalee ak njabootam. salaire bi muy fayeeku ci fa muy liggéeyee di fa mbindaanu sax tollul ci li mu war a dundalee doomam yi. ca saasi nag soxna sëri daal di dem daal di dajale mboolem lekk bu fa nekkoon daal di koy indi ngir jox ko ko ngir mu jox ko ginaar yi mu ni moom la yar. bi mu ñëwee nag soxna si di ko xamal ni bu ëllëgee daal dem ko defal ci ak kees kees gu set goo xam ne dana tax ginaar yi du ñu feebar. ba mu ko waxee loolu nag dëkkandoom bi daal xalaat xalaat ci boppam la jëm ak doomam yi léegi nag mu commencé di ko ko defal ci kees yu set ngir di ko ko indil ba yàgg sax mu muy dem ci épicerie ba di fa indi ay lekk yu bari di ko jëndal ay lekk yu bari yu am solo di ko ko andil dem ba mu yàgg sax mu di ko sóoraale ci añam saa yu toggee añ ba pare daal tibb ñaari bool daal di ko koy andil ci noonu daal la ñuy dem ba doomam yi daal di nekk ci ay conditions yu baax léegi dëkkandoom yi nga xam ni moo ko daan indil añ di ko dimbali si njabootam nag dem ba ci yàgg mu daal di dem ci boroom këram ba ko fase woon di waxtaan ak moom ni ko bu ma sañoon daal nga jël ci waat sa soxna sii tey it boo nekkaatee ak moom doo ci am lenn lu la naqari danaa waxtaan ak moom bu baax naaw bi mu ko gaaralee loolu lépp nag jëkkër ji daal si xalaataat bu baax bi mu xalaatee ab diir daal di d'accord léegi mu daal di koy takkaat soxna si daal di delluwaat ci këram daal di tàqalikoo ak dëkkandoo ba nga xam ni moo ko daan dimbali léegi conditions yu baax nekkaat di dund ak njabootam ak borom këram nekk ci jàmmam. kon mbokk yi nga xam ne dëkkandoo lu am solo la ndax dëkkandoom bi dimbali na ko ci njabootam dimbali ko ci taxawu ko bu baax ba ginnaaw ba mu fexe ba delloo ko borom këram ba mu nekkaloon kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn soxnaa ngi ni boo xam ni dafa nekkoon ci benn université di fa jàng ci université boobu moo xamante fa ak benn waay boo xam ni nekkoon na ko xarañ lool ci wàllum njàng mi ba daan dimbali sax professeurs yi ci lu bëree bëri moo waa ji ñu dem ba bëggante waa ji daal koy proposé ni ko kat dama bëgg bu at mi jeexee ma jël la soxna ci noonu ñuy dem ba at mi jeex ñu siiwal résultat yi ndaw si kat daal di admet bi si admet waa ji di koy takk bi ko waa ji takkee daal di koy benn appartement ñoom ñaar ñu dëkk fa ci la ñuy dem ba am at amul doom amul ëmb itam ñu daal dem ci médecin bi ngir def fa benn analise bi ñu demee bi defe defee analyse ba pare médecin bi di xamal waa ji ni ko sa jabarkat bala muy am doom il faut dana sonn dana ko indil ay jafe-jafe te it waa ji nekkul ko am alal lool ci la ñu àndee waat ci seen kër ginnaaw bi loolu xewee nag benn bis rek waa ji daal di ñëw ci kër gi daal di wax ndaw si ni ko dama laa bëgg a luyal beneen appartement ndax kër gi kat dama ko bëgg a changé bëgg a bi changé meuble yi ndaw si daal di xool kër gi daal ko ah yow kër gi kat màggetul te it dara ràppu fi lu jar ñuy sensé waaye waaj ji daal di ngoy fam ngoy rek daal ko kër gi daal faaw mu luyal la beneen apartement boo xam ni jege na sa kër papa waaye kër gi daal moom faaw faaw ñu defaraat ko léegi nag bi waaj ji ngoyee ci loolu rek ni du bàyyi ndaw si nag daal di mujj d'accord léegi bi mu ko luyeelalee beneen appartement ci diggante bi rek mu takkaat fi beneen soxna maanaam takk fi am ñaare te sax yëgalu ko ndaw sax maanaam jabaram ji njëkk ja ginnaaw nag la ko yëg bi mu ko yëgee am ko metti am na ko lu ko naqari mu daal di wax waa ne ko yow lu tax kat nga takk soxna tàgguwoo ma sax waaye te yëgaloo ma ko waaye waa ji ni ko da dama laa bañoon a sonal dama bañoon boo ko yëgee di am loola naqari loolu rek moo tax yëgalu ma la ko ginnaaw loolu nag ndaw si nga xam ni moom la mujjee woon takk te ñaareel bi daal dina ëmb ba daal di sax am doom waa daal di dem ci soxnaam su njëkk sa maanaam mooy aawo bi ndaw sam njëkkoon a takk di ko xamal ni yow day dama lay fase ndax sëy nañu at te mënoo am doom te kii nga xam ne moom la mujjee takk am naa ak moom doom te yéen ñaa ñëpp xam nga ni mënuma leen a yorandoo ndax sama doole mayu ma loolu yow daal kon faaw dama lay fase ndaw si daal ni ko yow kat bul ma fase ndax man dama laa bëgg te gis nga maa yow fi ñu jaar yëpp ba yegg si fii daal ni ko bu fekkee wàllum dépense bi rek loolu dinaa ko lijjanti ndax sama papa am na benn liggéey bu may lijjantil ci gouvernement bi bu bu bu bu sottee rek dinaa mën a yor sama bopp. waaye nag bul ma fase gannaaw ba ko waaj a fase nak ndaw si daal di doon ku gëm yàlla ku ragal yàlla lool. continuer di jaamu yàlla ak jaamu yàlla di julli ak di naafile ak di ñaan yàlla. ginnaaw bi mu matee weer rek liggéey boobu nga xam ne moom la ko papaam doon lijjanti ci gouvernement bi yàlla dogal na mu daal di sotti mu am liggéey ci gouvernement bi di liggéey foofu mu doon liggéeyee nag yàlla dogal na mu daje fa beneen góor ku góor it da ko bëgg lool. waa ji daal di waxtaan ndaw si ni ko sa jikko ju rafet ji kat ak sa rafetaay bii yàgg naa ko wër yàgg naa koo xemmeem yàgg naa koo gént itam yàgg naa ko ñaan yàlla. ci lay waxtaan ndaw si ba yàlla dogal mu daal di takk ndaw si léegi nag ginnaaw bi nga xamee ni waajooju takk na ko waaye nag waa ji nekk xam ne ku sawar la lool ci jaamu yàlla ku baax la lool. mu continué di ñuy jug di julli guddi gi ak di naafile di continué di jàng alxuraan daal di sax ci loolu. diirum ñetti weer nag ginnaaw mariage bi ndaw si daal na yëg benn métti lool ci biiram. waa ji koy jël daal di ko yóbbu hôpital bi mu ko yóbbu hôpital ñu ñu xool ko médecin yi daal di koy xamal ni ndaw si kat dafa ëmb. waaye moom ndaw si bi ñu ko waxee ni sax da nga ëmb gëmeewu ko. ginnaaw bi nag ci la ko médecin yi génnee ay preuve yu leer yu koy wane ni kat yow mi da nga ëmb fa saase rek ndaw si daal di xam foofu bi mu xamee ba ximbilu ko rek daal di sujjóot daal di sant yàlla ci xéewal yi nga xam ni moom la ko sunu borom defal ndax yàlla may na ko borom kër boo xam ni ku lewet la lool te yit moo gën a lewet sax borom këram ba mu njëkkoon a am te it bëgg na ko lool ak liggéey bi nga xam ni suñu borom defal na ko te xam ni xéewal yi mu am yëpp ci la jaar yi mooy mooy liggéey bi mu am ci gouvernement bi yooyu yëpp nag ndaw si di ci sant yàlla subhanahu wa taala képp ku ñëw ci moom itam wala nga woo ko di ko nemmeeku maanaam di ko ndokkeel mu lay fàttalikat xaddis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko dafa waxoon ni pay yu màgg yi mu ngi bàyyi ci balaa yu màgg yi maanaam bépp pay boo xam ne dafa màgg rek dafa fekk ni kat natt yo ko jiitu woon dafa dafa kawe képp ku ñëw si ndaw si daal di ko ndokkeel mu lay fàttali xaddis bi di lay wax ni bépp pay boo xam ne dafa màgg rek daa fekk balaa yu ko jiitu dafa màggoon. yàlla bu bëggee aw nit sax faaw mu teg leen aw natt. ginnaaw loole waa ji nga xam ne moo ko njëkkoon a takk nga xam ne dafa takkoonam ñaareel rek taxoon mu fase ko ndaw sa nga xam ne moom la takkoon te moo nekkoon ñaareel ba ñoom ñaar seen sëy bi dafa mujjee naqari lool mujjee ci xuloo ak xeex maanaam daanaka ci xiroo ngaayoo ci lañ dëkk muy digal ndaw sa di ko wax ni dangaa war a topp ci tànki ki fi njëkkoon a nekk ndax déggoon na samay ndigal bàyyi woon na samay tere toppee ko ni ni ko kii toppee woon waaye ndaw sali mënul loolu nanguwu ko waaye waaja tourné waat ni siiw daal ni dina jotaat dina jotaat ci soxnaam si nga xam ni moom moom la fase woon gannaaw ba nag ci la yëg ni soxnaam sële kat tam fase woon ko am na borom kër te it am na doom waa ji commencé di réccu am lu ko naqare lool sax waa ji am lu ko metti lool kon mbokk yi ñuy delluwaat di leen ñaax di leen xamal ni kat gis nañu fi sëy yu bare bare bare yoo xam ne ñàkk am doom mooy li ko tas te xamuñu ni doom suñu borom moo koy joxe te saa bu woon soobee la koy jox ab jaamam ak nu mu ko soobee. ngay ànd ak nit di sëy ak moom amul doom nga takk beneen soxna mu am doom nga bàyyi kii loolu nekk na lu ñaaw lool. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi lii ab soxna la woon boo xam ni mi ngi doon liggéey ci benn hôpital benn bis benn soxna dugg fa ànd ak doomam ak goroom bi nga xamee ni dugg na mu ngi wax ak docteur bi ci wax bu metti maanaam gëdd docteur bi ni ko kat bëgg nañ nga xoolal ñu suñu goro bii ndax feebar bi mu jànkonteel métti nañu torop te maa ngi ñaar yàlla sax mu doon feebar boo xam ne da koy rey ñu noppali ko soxna si daal di bëma mère bi ci docteur bi waaye nag xaw tuuti mère bi daanu ginaaw bi docteur bi téye mère bi daal di wax soxna si ni ko xanaa doo ragal yàlla xanaa du kii mooy sa yaayu borom kër te moom mooy sax ki lay teete waaye soxna si daal di mer lool di xamal docteur bi ni ko kat kii benn du sama yaay juruma maanaam daal koy xamal ni itam ni ko kii dafa ñàkk xelam ndaxte ay mbokkam yëpp dañ ma kaa bàyyee man moom ak samay borom kër ñuy dund. ginnaaw bi nga xamee ni sama borom kër daal mi ngi liggéey bañ jugee si ñàkk ba commencé am alal mu bëgg maa dàq ci kër gi bëgg bu bun xataal. bi mu ngi am kersa lool ci li xale bu jigéen wax daal di wax ak moom ci tekk ak tey ngir lii mu ko wax kat doy na waar lool docteur bi daal di koy conseillé ci gorom bii kat waaye nag xale bu jigéen bi. gu loolu. léegi nag ndaw si daal di wax docteur bi ni ko fekkee kat man nga liggéeyal wala moom ngay liggéeyal mën nga ko yóbbu fi nga xam ni fa la ñuy yóbbu ñu màgget ñi. docteur bi daal di sukkandiku nag ci li nga xam ni moom la ndaw si wax daal di xalaat ab diir di xamal ndaw si kat ni ko di ngeen ci moom dinaa leen noppal ci moom ndax dinaa ko yóbbu kat sama kër di dund ak moom. daal ko man kat maa nekk ak sama yaay ak sama rakk bu góor daal ko kat boo demee ba jàq ci moom nanga nga man ci numéro bii ndaw si daal di lool daal di génn di dox mel ni ku gañe ab xeex ginnaaw loolu nag docteur bi daal di xool maire bi maire bi daal di ko xool muuñ maire bi xool ko mel ni kuy wax xale bu ndaw daal ni ko ndax dana la gërëmloo may tuur ab kopp ndox ci lu ma tëyul ci tàngooru jant bi docteur bi daal di ñeewantul maire bi lool daal di koy xool di jooy am yëg-yëg lool ci moom mel ni ku jàkkaarloog xale bi nga xamante si ni xamul dara maanaam yëgul dara docteur bi kat daal ni ko déedéet yaay booy du ma gërëmloo kat waaye nag xaar ma tuuti ab diir rek di nga kontaan ci suma paree ci liggéey bi rek dinaa la yóbbu kër ga. ginnaaw bi nga xamee ni kat docteur bi liggéey na ba wàcc daal di ànd ak soxna sii kat daal di koy yóbbu seen kër. ginnaaw bi docteur bi àggee ak moom ci seen kër daal di koy jébbal yaayam yaayam daal di koy teeru daal koy tatagal mel ni ku jàkkaarloog doomam wala rakkam ginnaaw ñaari semaine benn bis yaay docteur bi daal di woo docteur bi di reetaan di ko xamal kat tey da am ñaari gan yu la si. kenn ki di sa doomi nijaay keneen ki di sa dëkkandoo bi nga xam ne tukki woon na ab diir ba ñibbisi ñoom ñaar ñëpp kat dañoo ñëw ngir ziar suñu daal di ñuy gane si docteur bi daal di reetaan yaayam ji kat kontaan lool ci li mu ko wax. wax yaayam ne ko man day fii mu ne nii damay sant yàlla ndax kat maa ngi ci samay fanweeri at te ma am ñaar gan ñoo xam ni seet nañu ma. ni ko kat ana lan moo gën a màgg nekkook maire bi ci suñu kër. ginnaaw bi mu fi nekkee moom mi xam ne kat yàlla def na ko muy sababu suñu mbégte saa su ne ginnaaw nag bi mu amee ñaari weer ndaw si xam ne moom moo indi woon maire bi ci docteur bi kat daal di woo bi ci numéro bi mu ko joxoon di ko xamal ni kat dama bëgg ñu daje ci seenu kër. ginnaaw bi ndaw si ñëwee ci docteur bi boole ko jooy metti lool di xamal docteur bi kat ni ko ana sama yaay ma sukkal ko raamal ko jéggalu ko ndax kat ginnaaw ba mu jugee ci kër ga ba léegi ngi ci ay jafe-jafe yaa ngi ñëw ci suñu kaw. kër ga amatul jàmm ndaw si di xamal docteur bi kat ni ko am na benn immeuble bu nga xam ni sama jëkkër kat moo ko doon tabax maanaam liggéey bi ci loxoom la nekkoon immeuble bi dafa mujjee daanu ba sama borom kër bi mu ngi ci loxoy yoon ba tey mu koy xamal ni enterré nañ sama doom ji hôpital ci feebar bu dansé lool daal ni ko man tamit boo ba léegi mënutuma nelaw ndax damay tëdd di gént gént yu bizarre lool gént yu doy waar ndaw si daal ni docteur kër ga amoon nañ barke lool amoon ay doom yu barkeel amoon wërsëg lool ci sababam moom ci nekkam ca kër ga. dal ni ko léegi barke ba dem na amatuñ dara ndax tooñ yi ñu ko daan tooñ daal ni ndaw bi ni ko ah docteur kat dimbali ma nga delloo ma sama yaay ji. nes tuuti rek maire bi daal di génn taxaw ku jigéen ki daal di koy gis jaaxi lool ci setam ak melokaanam. ak ci condition yu normal yi mu nekkee. ak leer gi bàyyi ko ci kanamu maire bii maire bi daal di saafonte ak moom. daal di saafonte ak yaayu docteur bi saafonte ak docteur bi daal ni leen kat man maay dama bëgg a dellu ci suñu kër. ñuy wax mbokk yi kat ni lu baax rek am solo ndax ndaw si lu bon li li mu doon def maire bi tey lépp këpp na ci kawam tey docteur bu baax bi nga xam ni moo jëloon engagement yor maire bi ci këram dinga ko way juróom way juróom wa teeru ko teral ko tey gis ngeen li limu leen ji njëriñ yi ca nekk kon mbokk yi nañu bàyyi xel ni lu baax rek am solo jërë jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn waay la boo xam ni doomam dafa feebar feebar bu metti bi mu demee ci pharmacien ba ngir wan docteur bi ngir mu xamal ko ordonnance yi ñaata la docteur bi wax ko lu seer waa ji xam ni amu ko daal di am njàqare kanamam daal di tiis lool ba bi muy jëlaat fooy bi sax mu ngi lox lox yu metti ndax xam na ni doomam feebar na te ordonnance yi ñu ko bindal amu ko mënu koo jënd léegi ndaw si nga xam ni nag moom moom pharmacien bi daal di xool waa ji xam ni kat amul lu mu ko jëndee ndaw si daal di docteur bi daal di koy junju daal ni ko jox ko li ñu waroon a gañaa docteur bi daal di woowaat waa ji daal ni ko da gañe gañee bokk ci client yi nga xam ni dañoo gañe ndax dañuy def kat ku fi jënd ordonnance ñu enregistré sa numéro. te fekk na sax waa ji moom gañewu fa daal. mu daal ni ko léegi ma jox la garab yi wala ma jox la xaalis bi. waa ji di ko xamal ni man kay sama doom dafa feebar te awma lu ma ko fajee jox ma garab yi daal moo may gënal. ginnaaw loolu nag ba waa ji demee ndaw si nga xam ni moom moom pharmacien bi docteur bii doon jaay waa ji daal di ñëw ci moom daal ni ko yow ay yoon a ngi nii ngay def lu mel nii nit ñi bu ñëwee amuñu lu ñu mottalee seen garab yi nga leen koy mottaleel bëgg naa nga wax ma lan moo tax nga di ko def ndaw si daal ni ko benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle dafa wax ni képp ku teggil njàqare ab jullit sunu borom dana teggi sa njàqare bokk na it ba tey ci li tax ma di ko def mooy dafa waxaan ni képp ku suturaal ab jullit sunu borom dana la suturaal ñetteel ba tam mooy ba ma nekkee xale toll si jàng sama waajur dafa génn àdduna bi mu faatoo nag demoon naa seeti sama benn nijaay ngir bëgg mu jàppale ma ci sama njàng waaye ba ma demee daal dani ma dégg naa ko rek tey moom dafa nekkoon ku nay lool nga xam ni ba ma fa jógee joxuma fa dara tey aw ma woon ci moom yaakaar ginnaaw ba delloo ca kër ga nag ma jékki-jékki am ko fëgg ma tijjil ko muy benn waay boo xam ni man sax xawuma ko mu daal di may jox alal ju bëri daal ni ma lii sa nijaay moo la ko jox daal ni ma nee na dana la jox lu toll ni ci alal sag weer te fekk na waa ji moom mooy toggukat bi nga xam ni mooy toggal nijaayam bi soxna si ñëwee ca kër ga di diis nijaayam soxlaam boobee waa ji da koo déggoon dégg ko bi muy wax ak moom ak la mu fa jëlee muy wax ak docteur bi ba tey ni ko si jamono jooju nag ñu toog ay sa chaque mois muy ñëw di ma indil xaalis bi benn bis ma dem ci sama nijaay ngir di ko sant ak di ko gërëm di ko xamal ni alal jii ngay jox sa mbindaan mi mu ma koy indil sa weer maa ngi siy jot. nijaay ji daal di koy xool xoolum njàqare lool ndax lii soxna si di wax jaaxal na ko lool nijaay ji ne ko jan alal ngay wax. ndax kat yónneewu ma la dara mu daal ni ko léegi nag ci ci laa door a xamee ni mbindaan mee daan liggéeyal sama nijaay sa salaire bi ñu ko daan fay. moom la daan xaaj lenn ñi mu yóbbul ko njabootam lenn li mu ñëw dimbalee ma mu daal ne si jamono yooyu nag laa daan ñaan sunu borom ngir mu dimbali ma may ma alal ju baree baree bari ba ma man see dimbali képp koo xam ni dafa néew doole ngir ma mën a fayeeku li nga xam ni moom la ma ku baax kii daan defal docteur bi continuer di laaj di laaj ndaw si nga xam ni moom moom pharmacie bi ni ko ni ko waaju baax jooju la defal loolu lépp ana lan nga ko fayee ndaw si ni ko waa jooju dee dafa nekkoon ku baax koo xam ni moom du diis kenn soxlaam waaw du dem ci kenn di ñaan dimbal waaye nag loolu moo tax bi ma demee ba am borom kër yàlla dimbali ma ma am tawféex am xeewal gu bari sama borom kër dem na ci kenn ci buur yi maanaam ñi nga xam ne dañoo am barke daal di koy diis soxla waaju baax jooje di toggkat bi donte ni sax santu santu ko ko woon. buur boobee nag daal di na koy nangul sama borom kër daal di warlool waajee mboolem lum soxla ci ak dundam. te boobee man ak sama boroom kër. am nañ lu ñu doy sëkk loo xam ni danañ ci mën a dund. ndaw si di wax docteur bi ba tey di ko xamal ni man de su ma ko joxoon sama alal jëpp moom waa ju baax joojee du ma ko mën a fay. xanaa ma bàyyi ko yàlla mi am fay mu fayal ma ko kon mbokk yi ba tey nañu dimbalante suñu biir nañuy jàppalante suñu biir te ñu dimbali ñu ko yittewoo ci jamono yi ñu ko yittewoowee. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. yónnee ko jàkk rek ay bëñam ngay njëkk seen. ndax oyofam ba tax na képp ku xam ak ku xamul rek ci lu baax rek lay jëflante ak yow. waa ji daal di gis benn xale bu jigéen daal di koy bëgg lool daal di dem di ko ngore ji waaye da ko nëbbu alal ji mu am waxu ko ni ko ku am alal laa. ba tax na mbokki ndaw si bi ñu gisee waa ji sawuruñ ci lool maanaam joxuñu ko importance bu am solo. waaye waa ji nekk fa di waxtaan ak ndaw si di ko indil ay aaya alquran ak ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di bëgg di waxtaan ak moom ba ndaw si daal di mujjee d'accord. waa ji nag daan na faral di def semaine bu nekk mu daan fa ñëw benn yoon di seet si ndaw si amal ko njariñ lool nag. di ko indil ay tiraanga yu baree baree bari. waaye nag ba tey taxul waa kër gi jox waa ji importance lool. waaye ndaw si loolu da ko metti lool benn bis mu wéeteeg waa kër gi fekk sax waa ji nekk fa. ndaw si di leen ko wax. di leen xamal ni man de sàkkuma ci yéen dara lu dul ni li yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ni ku leen defal njekk na ngeen ko fay njekk moomu su fekkee nag amoo leen lu ngeen ko fay ngeen ñaanal ko yàlla sunu borom mu defal ko aw yiw te it bu boobaa dana mel ni fay ngeen ko mu daal ni leen lii rek laa sàkku ci yéen sàkkuma ci yéen alal sàkkuma ci yéen lenn waaye nag waa kër gi li mu wax amuluñ ko benn benn solo ay reetaan lañ ko def waaye ñuy dem suñu borom dogal waa ji daal di takk ndaw si bi mu ko takkee ndaw si daal di sëy si ginnaaw fekk na ndaw si moom amoon na benn rakk bu jigéen rakkam bu jigéen boobu am na beneen waay bu ñëw ngir bëgg si ko. waa jooju nag moom dafa nekk koo xam ne ku am doole la lool ci ci état bi sax lay liggéeyee. waaye nag waa ji dafa nekk koo xam ne moom alali ger rek lay lekk moom daal dañ koy ger rek. te waa ji sax moom daanaka du leen defal dara saa su ne daal day ñëw ci kër gi rek di leen wax waxi àdduna ñuy reetaan rek waaye amul leen benn njariñ ñoom daal loolu moo leen neex ci waa ji waaye waa waajee nga xam ne moom bu ñëwee yàlla yonent bi nee na la leen di wax moom amuñu ci moom benn soxla waaye kii nga xam ne nag moom bu ñëwee tàll tànk yi ak di leen wax waxi àdduna di xas ak di jëw ñuy ree ñoom daal loolu moo leen neex ci moom saa su ñëwee daal waa kër gi yëpp dañuy kaf di ree di animé mu neex lool ci ñoom léegi nag ginnaaw bi loolu yëpp amee ndaw sii nga xamante ni moo demoon sëyi ci waa ju baax ja daal na ñëwaat ngir seet si waa kër gi bi mu leen seetsee daal di ànd ak jëkkëram ju baax ji bi mu ñëwee ci kër gi nag fekk fi rakkam ji nga xam ni waa ji ko doon goro si daal dina ñëw ci kër gi ñoom ñëpp ñu tasee fa. ci benn feet bu fa xewoon ca kër ga. bi ñu ñëwee nag waa kër gi yëpp daanaka daal joxuñu leen benn yitte bu am solo. ñu mel ni daal ñoom nekkuñu ci kër gi. ñii toog fee di waxtaan di kaf di ree daal di leen di bàyyi noonu. léegi nag ñoom ñu dem ba xam ni daal santiruñ seen bopp ci kër gi ñu daal di jug di dem. bi ñu jugee di dem nag yaay ndaw si di leen mel ni kuy tagg. waa jële nga xam ne moom moo leen di animeel ak di leen waa wax yi àdduna ñuy reetaan di kontaan mu leen di wax ni aw yiw daal mu ngi ci ñi ko yor maanaam affaire bi daal moom mu ngi ci xale yi góor yi ko yor loolu nag daal di metti ndaw si bi ñu delloo seen kër ñoom ñaar daal di toog ndaw si di jooy jooy yi metti di ko xamal ni daal man daal suñu kër duma fa demaan ndax gis naa ni ñu la suufalee ak ni ñu la tuutalee teguñu la fenn ci gàttal waaye waa ji di ko xamal ni daal man daal loolu méttiwu ma méttiwu ma benn yoon li ma naqari kay mooy kii di ngoro sa sa rakk ji gëstu naa ay mbiram waaye xamal nañ ni ma daal moom. ab fonctionnaire daal la boo xam ni dañ koy ger rek alali ger rek lay dunde te day nax ñu baree baree bari moom daal fonctionnaire la woon boo xam ni dañoo dem ba xam ni day lekk alali ger te day wër rek di naxaate ñu daal di koy dàq. mu daal ni ko daal ma sañoon daal nga woo sa baay wax ko ko bi ndaw si jëlee téléphone am daal di woo baayam di ko ko xamal. wax ko lépp histoire bi ni mu demee waaye bàyyam daal daa muuñ rek daani ko ah loolu daal maanaam gëmul li ndaw si wax. ginnaaw loolu yëpp nag ab diir bu gàtt rek lañ ci tegaat waa kër gi ñoom ñëpp ñu daal di ñëw si ndaw si di jooy jooy yu metti di sàkku ci moom ndimbal. di ko wax ni daal ki doon ngoro si sa rakk ji daal dañoo jékki-jékki rek gisatuñ ko te it jël na si ñun alal ju baree bare bare ñu alal yëpp la yóbbu te xamuñu sax fan la nekk. ñu dem ci appartement bi ñu ko daan fekk fekk mu wéet lool ñu fekk fa benn waay waa ji di leen xamal ni moom de tox na jóge na fi bu yàgg léegi nag ñu daal di ñëw ci waa ju baax ji ngir di ko ko nettali te it ñoom xamuñu woon sax ni waa ji ko am alal la lool ndaxte moo ëpp waa jële alal fuuf waa ji daal di jël alal jëleen waa jële jëlal yëpp daal di leen koy delloo di leen xamal ni seen comportement bii daal bu ëllëgee bu mu leen dalati dangeen a war a ragal yàlla sunu borom. seen bàyyi nag daan ni ko ah yow de ku baax nga waaye xamee ko woon nii sax nag yow daal tax nga ba ñu xam ku baax ak ku bon waa ji daal di leen xamal ni waa jële moom danañ fexe ba wër ko ba gis ko ñu daal di koy teg ci yoon yoon def liggéeyam. kon nag mbokk yi bul gis nit mukk ba xeeb ko ndax comportement am wala melokaanam. wasalaamualeykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ki benn soxna la boo xam ni borom këram dafa génn àdduna bàyyi ko fi mu am ñeent fukki at ak ñaari doom doom ju mag ji mu ngi jàng ba toll ci lycée jeneen doom ji itam mu ngi jàng ba toll ci primaire. léegi nag doom ji nga xam ni moom mooy doom ju mag ji jàng ba am bag bi mu amee bac war a dem université ngir àggale am njàngam waaye dafa bañ loolu daal génn dëkk bi ngir dem ci beneen dëkk. pour uti fa liggéey boo xam ni dana ci mën a dundale yaayam ak rakam ji. ginnaaw loolu nag yaayam ji ab feebar daal na ko dab muy feebar bu ñuy wax cancer. bi ko loolu dalee nag euh, dëkk am benn dëkkandoom boo xam ni da daan ko yóbbaale ci otoom lu bari ngir di ko yóbbu hôpital. léegi léegi sax soxna si daal di am kersa lool ci yóbbaale gi ko dëkkandoom bii di yóbbaale daan na bañ ngir am kersa. waaye nag saa yoo ko gàntalee dëkkandoom bi daal di koy fàttali. xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ni képp ku wuñu njàqare sa mbokkum jullit wala aw tiis ëllëg yam xiyam suñu boroom dana wuñ sa njàqare ay ko dëkkandoo bi fàttalee xadis bi daal soxna si door a mën ànd ak moom pour dem mu yóbbaale ko ci hôpital ba saa yi sax dëkkandoom bi moo koy jëndal ay ordonnance ak di ko toppatoo ci lu baree bari léegi nag doom ju mag ji nga xam ni moom moo tukki woon ngir wuti liggéey li mu daan liggéey daan na ko yóbbante juróom yi ak rakkam ji donte sax bëriwut woon lool daanaka li ñu daan dundee rek la daan tollool te it moom ba tey xamul sax ni yaayam dafa feebar. yaayam tamit moom it day fexe rek di ko nëbbu ngir mu bañ koo yëg. fekk yaayam mu ngi feebar lool dëkkandoom bi di ko yóbbu hôpital di ko toppatoo di ko jëndal ordinance waaye nag yaayam bëggul mu xam ci dara ngir di dellusiwaat ci réew mi wala muy bàyyi liggéeyam baag. ginnaaw bi loolu yëpp amee nag doom ju mag ji continué nekk ci dëkk ba di fa liggéey ginnaaw ba mu fa juróomi at. suñu borom defal ko xeewal gu yaatu mu am xaalis bu baree baree bari daal di ñibbisi daal di indaale oto bu rafet. gannaaw mu ñëwee nag ci lay door a xam ni kat yaayam dafa feebaroon. ak dëkkandoom bi nga xam ni moo daan yóbbu yaayam hôpital di ko toppatoo ak di di ko jëndali ordonnance. mu dem ci dëkkandoo ba yóbbul ko alal ju baree bari ngir di ko fay li nga xam ni moom la daan defal woy juróom yi ci feebaram bi. dëkkandoo bi tamit bañ na koo jël. di koy xamal ni daal lépp li nga xam ni moom laa doon def yàlla rek moom moo taxoon ma di ko def. diir bu gàtt rek lañ ci teg rakkam ji nga xam ni moom moo doon jàng daal di mu nekk ci di ko toppatoo ak di ko faj yëmu ci loolu sax de waaye yeneen xale yi nga xam ne dañoo nekk ci koñ bi yëpp rek te feebar daal di amee feebaru cancer ñoom ñëpp mu jël leen di leen dugal ci otoom di leen yóbbu hôpital di leen toppatoo ak di leen faj. te it du sàkku ci ñoom dara ci ak fay maanaam duñ ko fay dara yëmul ci loolee da leen daan tegal ci biir otoom siira gaañu baax ñi ñoo xam ne dañuy nettali jaar-jaar yonent ak nit ñu baax ñi ñu koy déglu ngir woyefal seen tawat ji ginnaaw bi loolu yëpp amee nag diiru ñaari at lañ ci tegaat rakkam ji nga xam ni moo paralysé woon daal na wér yaay itam tam daal dina wér ginnaaw bi nag la toll ci war a jël soxna yaayam daal di koy digal dëkkandoo mi nga xam ni moo ko daan yó daan yóbbu yaayam ci hôpital ba di ko toppatoo ci feebaram ba mu amee woon yaayam daal di koy digal ngir mu takk doomi dëkkandoom boobu ñu daal di dem daal di ci waxtaan ak moom mu daal di d'accord ñu daal di koy may doomi dëkkandoom boobu ngir mu jël ko soxna waa ji daal di continuer nag di def lu baax li mu daan def ak di faj ñi feebar te di ko def it te yàlla rek tax ñoom ñëpp nag ñu daal di wér daal nekk ci seen jàmm nga xam ni def lu baax rek te yàlla rek tax mooy li am solo wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn waaye nii boo xam ni ku baax la lool ku sell itam yoroon benn place daan fa jaay li nga xamante ni moom moo di ay pommiteer ak i mburu ak yu mel noonu. mu di ci dundal ak njabootam yàlla suñu borom mayoon na ko mu am ñaari doom yoo xam ne ñu mag lan ñaari doom yëpp nag am nañ ay soxna. ñuy dundee noonu di ci suturlu dem ba yàgg doom ju góor ju mag ji daan ko bàyyi. man day màgg naa léegi dama bëgg ma beru bëgguma liggéeyalati keneen dama bëgg nga jox ma sama paar ma liggéeyal sama bopp. bàyyi ji ni ko en ah, doom tee ngaa def ni nga daan def rek di liggéeyal ak man weer bu dee lu ma teg sa loxo nga jël loolu day suñu borom dana ko barkeel. doom ji ne ko dëgg la papa waaye bu ma sañoon dey nga bàyyi ma ma liggéeyal sama bopp bàyyi ji daal di koy mujj jox loo xam ni buñ ko xaajoon ñetti xaaj muy ëppale baay ji ëppale rakkam ji itam maanaam jox ko lu baree baree bari mu dem daal di beru ubbi ci ab palaasam ngir liggéey waa ji commencé ubbi palaas bi waaye mu toog ab diir toog lu yàgg lool saa su ne rek mënul fexe ba jaay maanaam du gis benn client boo xam ni day ñëw di jënd ci moom waa ji dem ba loolu metti ko loolu naqari ko dem na sax ba di lal ay pexe di tuumaal papaam ak di yónni ñoo xam ne dañuy yëkkati ay wax ju ñaaw di ko teg ci clients yi ngir ñëpp rek daal di ñëw di jëndee ci moom. waaye suñu borom daal di dogal loolee lépp dara sottiwu ci muy dem di dundee noonu ba benn bis ñu daal di koy tàggee baayam. ndeysaan bi ñu ko tàggee baayam waa ji daal di kontaan lool ngir ni moom day dana gañe place bi dana récupérer clients yi yëpp. ci loolu sax moom waa ji mu dem ba récupérer palaasu papaam bi nga xam ni fereeram moo fa nekkoon daal di dàq fereeram récupérer ñaari place yëpp waaye li muy gën di des ci ñaari place yi di gën di am yaakaar suñu borom dogal yaakaaram jooju yëpp daal di tas mënul fexe sax ba gis benn client ci ñaari place yëpp nag. benn bis benn soxna daal di fay ñëw di ko xamal ni man dey damaa bokkoon ci ñi nga xam ni dama daan liggéeyal lool ak sa papa dafa ma daan jox saleer weer wu dee dama bëggoon nga continuer ak man loolu di ma fay weer wu dee waa ji di ko xamal ni loolu de sama papa moo ko doon def te jóge na fi. te it du ma topp ci loolu li mu doon def moom moo ko doon def waaye jóge na fi man maa fi nekk léegi. daal di ne ko ni ñuy def daal mooy nga daal di dem toog rek lu ma am ci li ma man rek dana la ci dimbali. ci noonee waa ji di dem di dem ba daal di mujj daal di daanu maanaam ñaari place yëpp amatul dara ndeysaan mu yéeme ci moom lool metti lool ci côté am waa ji amatul dara ñaari place yëpp dara dara amatu fa. ci noonee nag ci la toogee ba yàgg soxnaam si bay boo nga tuub dellu ci sa borom ndax gàntalu nga ci liggéeyal sa baay tey dàq nga sa frère bi nga xam ni yéen a bokkoon doon liggéey te jigéen bi nga xam ni sa baay ko yoroon daan liggéeyandoo moom danga ko mujjoon dàq li la war daal mooy nga tuub dellu ci sunu borom. ci loolu ci la waa ji daal di tuubee daal di ñaan yàlla sunu boroom mu jéggal ko mu daal di dellu jëli rakam ngir liggéey ak moom daal di jëli jigéen bi nga xam ni waajuram mu la daan liggéeyal tam daan ko dimbali daal di ñëw ngir continuer liggéey boobu. ñu daal di continuer waat di liggéey ci la fàttali ko la sang ba waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne daal li gën si jëf yi mooy nga bégal ab jullit te mooy bu dee dafa xiif. nga dimbali ko jox ko lu mu lekk bu soxlaa boo ko amee nga jox ko bu fekkee dafa ñàkk nga dimbali ko te yàlla rek tax bu amee aajo nga taxawu ko mu daal di récupérer waat fereeram ba ak mboolem li nga xam ni noonu la papaam daan liggéeye rek mu continuer ci loolu suñu borom dogal mboolem client yi yi mu amoon daal di mujj ñëwaat ba sax am loo xam ni amu ko woon continuer liggéeyam mu gën a jaar yoon lool. mbokk yi histoire bi nag liñ ci mën a jàngee bëri na lool ndax nit dey saa yu ko alal jiitalee ba mu fàtte diineem ak cosaanam ak ngorom kooku dey dana ko réccu lool asalaamaaleykum wa rahmatullah benn waaye ngi nii boo xam ni dafa nekkoon ci benn université dafa jàng wàllu médecine bi mu fa génnee ñu daal di koy jël ci gouvernement bi ci hôpital yi nga xam ni moo gën a mag te nekk ci capital bi mu daal di fay nekk di fa liggéey bi mu fa tàmbalee liggéey ci diir bu gàtt lool mu daal di am benn doomu nijaayam boo xam ni ñoom ñaar dañoo bëggante mu daal di koy takk daal di koy jël def ko soxnaam. ñoom ñaar ñu nekk ci jàmm di dund nekk ci mbégte ak bànneex. ci noonee rek ci lañ ko bindee moom médecin bi daal di koy affecté ci dëkk yi nga xam ne dëkku àll yi la ci village yi ngir mu dem fa. waaye nag moom loolu neexu ko mu daal di ci am njàqare lool ci affecté gi nga xam ne affecté nañ ko ci dëkku àll yi. loolu gënalu ko. rawatina soxnaam si nga xam ni dafa lànk ni du ànd ak moom ndax nee na moom dëkk ci ay àll. mu daal di mujj wéet lool daal di dem bi mu demee ci dëkk ba daal di nekk ci hôpital ba daal di koy jiite mu daal di seetlu ni waa dëkk bi ak baykat yi duñu faral di fajoo ci hôpital bii dañuy faral di jéggaani di dem ci yeneen dëkk ya di fa fajoo ji. bàyyi fi hôpital bii nga xam ni moo nekk ci seen dëkk moom docteur bi loolu daal di koy jaaxal lool ginnaaw bi nag ci di gëstu. ci la xam lan mooy sababu ba tax waa dëkk bi di bàyyi hôpital bi nekk seen dëkk di dem ci yeneen hôpital yi di fa fajoo ci la xamee ni ndakate waa jooju fa njëkkoon a nekk ba ñu jëlee ko fa daan ko fay indi moom mii ndax waa jooju da daan faral di jaay waa dëkk bi ay garab yu seer lool te amul woon benn yërmande ci malaat yi nekkoon ci foofu rawatina waa dëkk bi moom waa ji bi mu gëstoo ba xam loolu ci la commencé nag bëgg a saafara boobe la jafe mu commencé di wàññil waa dëkk bi mboolem ordonnance bu ñu indi ak di saafonte ak ñoom di leen faj di waxtaan ak ñoom ci njekk ak teraanga ak ci yërmande. yàlla suñu borom dimbali ko dem ba jafe-jafe boobu daal di saafarawu mboolem waa dëkk bi ak ñu dëkkul ci dëkk bi sax di faral di ñëw ci dëkk ba di fa fajoo ngir mbaaxam ak ni muy toppatoowee malade yi ba waa dëkk bi daal di koy bëgg lool. léegi nag mu daal di soxnaam sam bàyyi di ko xamal ni waa dëkk bi day bëgg nañ ma lool di ko wax résultat yi mu am ci dëkk bi ak ni mu leen di toppatoowee ak bëgg gi ñu ko bëgg di wax soxna si ni ko damaa bëggoon de yi nga ñëw nekk ci sama wet ngir gën maa jàppale ci liggéey bi waaye ba tey soxna si nanguwul ñëw ni ko man daal duma ma dëkk ci ay village saa su waxee loolu rek soxna si da koy faral di jox ngànt ci noonee ñuy dem ba benn bis benn waaye daal di ñëw fii ci hôpital bi di ko xamal ni dafa am sama benn mbokk boo xam ni dafa tawat tawat ju tar lool te situation bee ma ko bàyyee daal jéggi na dayoo lool. ni ko waaw nañ ànd daal di dem bi ñu àndee dem ba mu àggee mu daal di gis benn màgget mu daal di tëdd ci lalam bi mu xoolee kër gi daal di gis benn teen ñu daal di ci wërale ak buum waaye buum gi tamit dafa daal di gudd lool jaar ci buntu kër bi daal di génn bi mu ñëwee daal di nuyu góor gi daal di koy laaj ban feebar moo la dal góor gi daal di ko koy xamal ñu daal di waxtaan waaye nag docteur bi di ko xamal ni guum gii ñu takk nag lu ko waral màgget mi di ko xamal ni guum gii ngay gis de moo génn ci sama buntu kër ba jëm ca jàkka ja te saa bu waxtu julli jotee ci guum gi lay jàppandu ba àgg sa jàkka ja te bu ñu jullee ba pare ba mbooloo mi dem ba jeex ci guum gi lay jàppaat moo may indi ba ci sama biir kër. docteur bi di xamal góor gi ni ko ak yow ni nga feebaree ak état bii nga toll ngay coonawu di sonn ci julli gii. góor gi di xamal docteur bi ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp koo xam ni julli nga waxtu teewlu ko seetanta rakkaa yi suñu borom la jéggal say bakkaar yu njëkk ak yu mujj docteur bi daal di jooy bi mu jógee ci góor gi nag daal di dem daal di jàpp daldi di julli tàkkusaan daal di ñaan suñu borom mu daal di koy jéggal lépp loo xam ni ay rëcc-rëcc la wala lépp loo xam ni mas na koo sàggane ci ay waxtu julli bi mu jullee ba pare ci la ko soxnaam sama bàyyi woon te mu lànkoon ni du ànd ak moom mukk di ñëw ci village yi daal di koy woo di ko xamal ni day lépp li nga ma waxoon ngir ma ànd ak yow ñëw foofu pare naa pour def ko daal di ko waajalal bu baax dinaa ñëw ànd ak yow liggéey bi incha allah soxna si daal di ñëw ñu daal di nekk ci hôpital ba di toppatoo malade yi ak waa dëkk bi bëgg leen lool ñu nekk ci seen jàmm waaja continuer di julli julli juróom yi benn waxtu du ko raw moom ak soxnaam si. kon mbokk yi nañuy góor góorlu di julli julli juróom yi te xam ne lépp luñ bëgg rek bu ñuy julli di ko ñaan yàlla suñu borom mën nañu koo defar wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokk yi benn waaye ngi nii boo xam ni dafa nekkoon ci benn université dafa jàng wàllu médecine bi mu fa génnee ñu daal di koy jël ci gouvernement bi ci hôpital yi nga xam ni moo gën a mag te nekk ci capital bi mu daal di fay nekk di fa liggéey bi mu fa tàmbalee liggéey. ci diir bu gàtt lool mu daal di am benn doomu nijaayam boo xam ni ñoom ñaar dañoo bëggante mu daal di koy takk daal di koy jël def ko soxnaam. ñoom ñaar ñu nekk ci jàmm di dund nekk ci mbégte ak bànneex. ci noonee rek ci lañ ko bindee moom médecin bi daal di koy affecté ci dëkk yi nga xam ne dëkku àll yi la ci village yi ngir mu dem fa. waaye nag moom loolu neexu ko mu daal di ci am njàqare lool ci affecté gi nga xam ne affecté nañ ko ci dëkku àll yi. loolu gënalu ko. rawatina soxnaam si nga xam ni dafa lànk ni du ànd ak moom ndax nee na moom dëkk ci ay àll. mu daal di mujj wéet lool daal di dem bi mu demee ci dëkk ba daal di nekk ci hôpital ba daal di koy jiite mu daal di seetlu ni waa dëkk bi ak baykat yi duñu faral di fajoo ci hôpital bii dañuy faral di jéggaani di dem ci yeneen dëkk ya di fa fajoo ji. bàyyi fi hôpital bi nga xam ni moo nekk ci seen dëkk moom docteur bi loolu daal di koy jaaxal lool ginnaaw bi nag la daal di gëstu. ci la xam lan mooy sababu ba tax waa dëkk bi di bàyyi hôpital bi nekk seen dëkk di dem ci yeneen hôpital yi di fa fajoo ci la xamee ni ndakate waa jooju fa njëkkoon a nekk ba ñu jëlee ko fa daal ko fay indi moom mii ndax waa jooju da daan faral di jaay waa dëkk bi ay garab yu seer lool te amul woon benn yërmande ci malaat yi nekkoon ci foofu rawatina waa dëkk bi moom waa ji bi mu gëstoo ba xam loolu ci la commencé nag bëgg a saafare boobe la mu commencé di wàññil waa dëkk bi mboolem ordonnance bu ñu indi ak di saafonte ak ñoom di leen faj di waxtaan ak ñoom ci njekk ak teraanga ak ci yërmande. yàlla boroom dimbali ko dem ba jafe-jafe boobu daal di saafarawu mboolem waa dëkk bi ak ñu dëkkul ci dëkk bi sax di faral di ñëw ci dëkk ba di fa fajoo ngir mbaaxam ak ni muy toppatoowee malade yi ba waa dëkk bi daal di koy bëgg lool. léegi nag mu daal di soxnaam sam bàyyi di ko xamal ni waa dëkk bi de bëgg nañ ma lool di ko wax résultat yi mu am ci dëkk bi ak ni mu leen di topp toppatoowee ak bëgg gi ñu ko bëgg di wax soxna si ni ko damaa bëggoon de yi nga ñëw nekk ci sama wet ngir gën maa jàppale ci liggéey bi waaye ba tey soxna si nanguwul ñëw ne ko man daal duma dëkk ci ay village saa su waxee loolu rek soxna si da koy faral di jox ngànt ci noonu ñuy dem ba benn bis benn waay daal di ñëw fii ci hôpital bi di ko xamal ni dafa am sama benn mbokk boo xam ni dafa tawat tawat ju tar lool te situation bii ma ko bàyyee daal jéggi na dayoo lool. ni ko waaw nañ ànd daal di dem bi ñu àndee dem ba mu àggee mu daal di gis benn màgget mu daal di tëdd ci lalam bi mu xoolee kër gi daal di gis benn teen ñu daal di ci wërale ak buum waaye guum gi tamit dafa daal di gudd lool jaar ci buntu kër bi daal di génn bi mu ñëwee daal di nuyu góor gi daal di koy laaj ban feebar moo la dal góor gi daal di ko koy xamal ñu daal di waxtaan waaye nag docteur bi di ko xamal ni buum gii ñu takk nag lu ko waral màgget mi di ko xamal ni guum gii ngay gis de moo génn ci sama buntu kër ba jëm ca jàkka ja te it saa bu waxtu julli jotee ci guum gi lay jàppandu ba àgg sa jàkka ja te bu ñu jullee ba pare ba mbooloo mi dem ba jeex ci guum gi lay jàppaat moo may indi ba ci sama biir kër. docteur bi di xamal góor gi ni ko ak yow ni nga feebaree ak état bii nga toll ngay coonowu di sonn ci julli gii. góor gi di xamal docteur bi ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp koo xam ni julli nga waxtu teewlu ko seetanta rakkaay yi suñu borom dana la jéggal say bakkaar yu njëkk ak yu mujj docteur bi daal di jooy bi mu jógee ci góor gi nag daal di dem daal di jàpp daal di julli tàkkusaan daal di ñaan suñu borom mu daal di koy jéggal lépp loo xam ni ay rëcc rëcc la wala lépp loo xam ni mas na koo sàggane ci ay waxtu julli bi mu jullee ba pare rek ci la ko soxnaam sama bàyyi woon te mu lànkoon ni du ànd ak moom mukk di ñëw ci village yi daal di koy woo di ko xamal ni dey lépp li ma waxoon ngir ma ànd ak yow ñëw foofu pare na pour def ko daal di ko waajalal bu baax dinaa ñëw ànd ak yow liggéey bi incha allah soxna si daal di ñëw ñu daal di nekk ci hôpital ba di toppatoo malade yi ak waa dëkk bi bëgg leen lool ñu nekk ci seen jàmm waaj a continuer di julli julli juróomi benn waxtu du ko raw moom ak soxnaam si. kon mbokk yi nañuy góorgóorlu di julli julli juróom yi te lépp luñ bëgg rek bu ñuy julli di ko ñaan yàlla suñu borom mën nañu koo defal wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokk yi benn waaye ngi nii boo xam ni da daan faral di jëfandikoo wàllum internet. mu aay ci lool bépp xeetu réseaux sociaux boo xam ni dañ koy jëfandikoo rek mu cay nekk ci loolu nag mu xamante ci ak ay jigéen ñu baree bari mu daan faral di waxtaan ak ñoom ay waxtaan yu neex ba sax daan leen dig ni leen dama leen di takk waaye saa bu ci waxtaanee kenn ba dig ko takk rek da koy mujj wor daan na def nag képp kum xamanteel ci ñoom rek daan na faral di waxtaan ak yow façon waxin wu doy waar ci xamante gu ma xamante woon ak ñu bari ci ñoom taxoon na mu sukkandiku ci loolu ba mu yomboon ko lool ba ku mu waxal rek nga daal di nangu loolu taxoon na mu wax ni ñoom ñëpp ay workat lañ ci loolu nag moom mii amoon na ay rakk yu jigéen ba bëggul mu ñu mel ni jigéen ñi ndax nee na ñoom kat ay workat lañ da leen daan tere sax ñuy waxtaan ci téléphone wala sax ñuy ñuy yër ci fenêtre wala ñuy taxaw benn góor wala ñuy dugg ci internet bi di wax. ba moom ci boppam moo leen daan yóbbu ca iniversité ba bu ñuy jàngi ngir di mën a surveiller seen bépp jéegu ci li ñuy dugg ak ci li ñuy génn ba ci biir biir kër gi sax dafa taraloon surveiller gi mu leen daan surveiller daw leen may dara ginnaaw loolu mu daal di dellu këram dugg ci otoom ngir bu àggee continuer di waxtaan ak jigéen ñi mu daan waxtaanal ci whatsapp bi ak ci facebook bi ci jamono jooju nag benn choc bu garaaw daal di am ndax xam ngeen kan moo nekkoon ci oto boobu def soog rakkam bu jigéen bi mu yóbbuwoon ci université muy jàng moom moo nekkoon ci oto bi daal di mel melokaanu comme magam ju góor jee comme lim naan def rek di dëkkee ci internet bi di waxtaan ak jigéen ñi moom rakkam bu jigéen boobu noonu la doon def. ndax rakkam bu jigéen bi dafa meloon melokaanu magam ju góor jee comme ni mu daan def ci internet bi di wër di naxaate ak di wor góor ñi. loolu nag moo waral choc bi ginnaaw loolu nag ci la rakkam bu jigéen bi faatu moo ko góor ki ci nekkoon ci oto bi dañoo dee ci ak mooy yàlla. loolu nag ñu ngi ko xamee ci yenn foo yi nga xam ni moo nekkoon ci biir oto bi bi foo yi naawee ci lañ xool xam ñaar ñi naka la ñu nekkee woon. ci biir oto bi ci la police yi woowee seen famille ngir xam yëgal leen li xew muy choc bi am te seen rakk ju jigéen ji def ko. ci la magam bu góor bi nga xam ni moo daan toog ci internet bi. di naxaate ak di waraate daal di ñëw bi mu ñëwee daal di gis ni ndakam bu jigéen bi kat moom moo faatu ci accident bi moo kenn ku góor ku mu nekkaloon ci la xalaatee wax yi nga xam ni moom la daan dégguloo jigéen ñi ak wor yi mu leen daan war ak lépp lu mu leen daan def ci internet bi ci la daal di jooyee jooy metti daal xalaat ni yàlla rekk moom mooy buur ci la réccoo lépp lu mu doon def xam ni àdduna wori nen la ci la xamee ni itam li nga xam ni moom la daan def doomu jàmbur yi mooy jigéen ñi mu daan nax ci internet bi di leen digg ak takk daan leen wor daan leen trahir loolu lépp moom moo këpp ci kawam. ci la continuer di jooy waaye saa yu fàttalikoo rakkam ju jigéen jee ci li mu deewee ak ci melokaan wi mu deewee ak ci li mu nekkoon ba faatu xelam day tooy muy jooy ndax moom ci loolu la nekk. mooy di nax jigéen ñi ak di leen wor di leen gëmloo ni da leen di takk ba pare loolu lépp du ko def. kon mbokk yi ñu gis ni jamono ji internet bi bari na ay yàqkat yu ci ne bëri nañu ci nekk di naxaate ak di woraate waaye ñu bàyyi xel ni lépp lu waaye def rek dana ko gis te wane lu nekkul ci yow ak wane foo nekkul ak wane noo melul ñett yi képp ku mu nekk ci yow rek danga sonn bu yàlla di wane dëgg-dëggi ni nga mel asalaamaaleykum wa rahmatullah TV site bees bi gaa yi di yefal ngir mu nekk télé non bul ko xeeb kaay fii ñu yefal ngir mu nekk télé non bul ko xeeb kaay fii ñu yefal mbokk yi lii ab soxna la woon boo xam ni ab étudiante la woon doon jàng ci école privée benn bis papam def accident mu yóbbu ko hôpital bañ ko seete wax ko ni ko sa papa de balaa mën a defaat benn activité dana yàgg lool ndax euh, dafa am ci ay cëram yoo xam ne dafa manqué te ci loolu faaw dana def ay opération yu baree bari te ci loolu dañ ci fay xaalis bu baree baree bari ci loolu nag ndaw si daal di bàyyi université bopp nga xam ne moom la moom la doon jàngee daal di dem ci benn hôpital di fa liggéeye ngir mu mën a fa am loo xam ne dana ci faj papaam. Euh, ndaw si nag nekk koo xam ne ku gëm yàlla la ku farlu la si julli juróom waaye dam nekk koo xam ne ku bëri yërmande la dem di amal ab liggéey bu am solo ci li nga xam ne moom mooy hôpital boobu liggéey ba ñëpp ràññee ko fa waa bi sax dañ koo tuddee woon malaaka rahma malaaka bi nga xam ne dafa am yërmande benn bis directeur hôpital bi woo ko ni ko ñun de dañ fi am benn malade boo xam ne dafa naqari deret lool waaye tam dafa bëri alal lool te gis nañ yow rek ci sag dal ak ci sa yërmande yaa ko mën a yor kon daal faw rek ñu jox la ko ndaw si am ci mbégte lool ci loolu ko directeur bu wax mu daal di accepté loolu nangu ko mu daal di jël malade boobu di ko faj di ko toppatoo waaye ci biir loolu yëpp seetlu nañ nañu ndake la ko directeur bi waxoon ci malade ci malade bi ndake loolu amul malade bi ku baax la ku bari bëri yërmande la ku ku ku laab ab xol la ku gëm yàlla la malade bi tam ni waxtaan ak moom ba yàgg mu naan ko man de samay mbokk dañoo saxal ci man benn feebar boo xam ne depuis ma nekk ndaw ba léegi waaye feebar bi moom saafara woon na bu yàgg-yàgg waaye dañ koo saxal ci man rek ngir mën a jël sama alal euh, waa ji itam seetlu na ci ndaw si ni ku baax la ku farlu la si julli juróom la ku bari ay teggin la mu daal di koy proposé ni ko man de dama dama laa bëgg takk boo sañoon nga nekk sama soxna ndaw si itam daal di xalaat ni ndaw si kat ku baax a baax la te moom kat saa mi ngi def lu baax ngir am ngërëmal yàlla daal di nangu loolu sëy boobu bi nga xamante si ni waa gi takk na ko nag ba am diir bu gàtt euh, mbokki waajoo gi daal di ñëw ci soxna si ni ko dañoo bëgg kat sa borom kër bii di sunu mbokk mi feebar bi nga xam ni moom lañ koy saxalal te mooy ak am ndof ñu bëgg nga dimbali ñu ci jàppale ci ci loolu nag ñu daal koy gaaral alal ju baree baree baree baree bare bi nga xamante si defal nañ ko loolu nag euh, ndaw si daal di gàntal loolu daal di lànk daal leen wax ne li ngeen wax kat du mu leen ci fekk du mu ci fekk si mukk mukk mukk diir bu gàttam ndaw soosu daal di am ëmb bi mu ëmbee médecin yi xamal ko ne kat sa doom ji kat bu juddoo dana am cër yoo xam ne du mat dana am faaw dana am cër yoo xam ni day paralysé du baax euh, médecin daal daal di koy si ne ko ci loolu bu la soobee mën ngaa def avortement ba nga xam ne doon bi du mën judd waaye ndaw si nekk xam ne ku gëm yàlla la ku ragal yàlla la mu ne leen loolu moom duma ko def mukk mukk ndax loolu suñu borom subhaanahu wa taala daf ko aramal bi nga xamante si ni itam euh, benn weer rek moom moo des doom jooju juddu baayam daal di faatu te mooy jëkkëri ndaw si suñu boom dogal bu faatu bi nga xamante si ni itam faatu na euh, ndaw si daal dem police déclaré ko ngir moom ñaaw na njortu ci ni ay mbokkam ñoom ñoo ko faat ñoo ko jox garab goo xam ne moo ko naan mu faatu euh, bi mu ko déclaré police police daal def enquête def enquête ba xam ni li ndaw si njortukat moom moo am ay mbokkam ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko jox garab goo xam ne ba nga ko naan rek dafa di faatu fi saase saase euh, ginnaaw loolu bi nga xamante si nii police woo na mbokkam yooyu di leen enquête ci diir boobu ci la ndaw si am doom te boobu mbokk yee nga euh, police ñu leen ñuy enquête bi ko yëgee nag am nañ ci mbetteel lool mbetteel lu rëy rëy waaye doom bi mu rek yàggul dara mu daal faatu bi mu faatoo nga xamante si nii borom këram bàyyi woon na ko fi tam amoon ca wàll doomam ji mu judd tam amoon nañ amoon na ca wàll kon day mel ni moom yaay ji moom mujj moom alal jëpp comme ni ko chariat islam yi àttee mu jël alal joogi nag daal di tabax jàkka ci turu borom këram ba ci turu bàyyi doomam ji daal di tabax itam daal di alquranu karim ci turu doomam ji nga xam ne moom lay jur daal di dellu ci université ba di jàng li nga xam ne moom moom la fa doon jàng ak di faj papaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi yi lii ab soxna la woon boo xam ni suñu borom dafa dogal ci moom ak ñàkk mu doon koo xam ni ku ñàkk la benn bis mu génn dem ci marché ba ngir du wut lenn ci ay bagaasu kër jum def ci këram bi mu demee ba jub marché ba mu séen seen ndaw soo xam ni mi ngi wàccee ci otoom mu xool kanam nga mu fees dell ak leeru ngëm yàlla. ak leeru jaam sunu borom subhanahu wa taala mu taxaw di xool ndaw si ndaw si di wër nit ñi nga xam ni ñoo nekk ci pegg marché bi di jaay ay lujum ku nekk muy waxtaan ak moom naan ko looy dundee sa biir kër ñu koy wax muy bind ci loolu mu ni leen bis ni tey daal bu kenn ñëwati ci marché bi di jaay kenn ku ci ne saa bu yar dewee lépp looy dundee sa biir kër dañ la ko indil sa biir kër bu kenn ñëwati ci marché bi kum laaj tam ba xam am nga foo dëkk boo ko nee déedéet mu yóbbu la ci këram toppatoo la ba li war ci yow yëpp mu def ko ndaw si nga xam ni moo génnoon dem ci marché bi doon ko ñàkk mu yéemu ci jëf ju rafet ji nga xam ni ndaw si mu ngay def moom itam mu am yéene yi jëf lu baax comme ni ko ndaw si di defee waaye suñu borom dafa dogal ci moom ko ñàkk la amul dara bi mu delloo ci këram fekk mi nga doon yar ay ganaar ganaar yooyu nen yi nga xam ne daarañ ko nen moom lay jël nag di ko baxal di ko saraxe di ko sarax policiers yi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi ci loolu ci la tàmbalee di def jëf jëf ju baax benn bis pachette bi nga xam ne ci la daa denc xaalisam ak ay peesam mu wadd mu ñëw ci kër gi xool fi nga xam ni fi la daa denc xaalisam mu fekk fa lu tuuti ci xaalis fekk fa lu bari lool waaye mu jël ko yónni doomam ju jigéen ni ko dema ca marché bi nga jëndal ma ay ñam bu ko defee mu ñëwee ma togg ko bi mu ko toggee daal di koy saraxe doomam gi sax mi naan ko ndax doo ci bàyyi loo xam ni moom ngay mosee ñam wi ndax yow kat lii ngay togg danga koo bëgg lool maa ni ko déedéet du mu ci mos dara lépp lay saraxe te suñu borom rek tax gannaaw as ndiis gàtt am ko fëgg mutu këram mu ubbil ko fekk waa ji mi ngi bàyyi ko lenn ci réewi tubaab yi daal di gàddu ñaari valise yoo xam ni daa fees dell ak xaalis daa ni ko lii day sa mbokk bi nekk bitim réew moo leen ko jox mooy miiras mi nga xam ni yaag moom yi na ko bokkoon nee na nga jël wàllam may na ko ndax moom kat fii ñu toll suñu borom dimbali nañu ko ba am na alal ju baree bari kon la ngeen bokkoon yëpp may na ko muy alal ju baree bari ci ndaw si mujj nag nekk koo xam ni ku bari alal la ku bari xaalis la lool loolu ñu ciy déggee ni suñu borom ni wax ni wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu lépp lu ngeen dépassé suñu borom dana leen wutalal loolu mbaa ko ëpp ñam wi nga xam ni itam moom mooy ñam bi bi gën bëgg tam daan ko saraxe moom la suñu borom di wax ni lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun boo leen saraxe da ngeen seet li ngeen gën a bëgg ngeen ngeen saraxe ko kon foofu ne yemale kàddu yi kullu aam wa antum bi alfi alfi xayri wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ab waay la woon boo xam ne dafa takk soxna su baax soxna soo xam ne yàggoon naa bëgg mu nekk soxna ngir ak mbaaxam ak bokk gi ci askan bu baax a baax mu takk ko ba am ak moom juróomi at soxna si nekkoon ab jaamukat yàlla nekk koo xam ne ku farlu si julli juróom la ak jàng alxuraan bi xamee ne si ni am na ci bi juróomi at Euh, soxna si benn bis mu ñëw ci borom këram ni ko dama bëgg nga ubbil ma li nga xam ne moom mooy page Facebook bu ko defee may man di connecté wu di xam li xew ci àdduna bi yëpp ci loo ko borom këram daal di ubbil page Facebook soxna si tàmbali di connecté wu bi nga xamante ni soxna si tàmbali naa connecté wu nag borom kër gi seetlu ni lu ëpp ci ay waxtoom léegi daf koy sànq ci li nga xam ne moom mooy moom mooy inter internet bi benn bis soxna si di togg. bàyyi téléphone bi ci waañ bi borom këram daal di dugg gis téléphone bi mu teg ko mu daal di koy jël daal di xool message yi daal di gis ne soxnaam si kat ndeke day waxtaan ak ak euh, waa ji nga xam ne moom la njëkkoon a bëgg laata mu koy tagg mu xool message yi gis mu ngi cay wax naan ko man de yow rek laa bëgg samay waajur ñoom ñoo ma forcé ci sëy bi waaye bu ma sañoon man yow lay sëyal borom kër gi daal jaaxle lool daal di am lu ko metti mu di seetlu ni ndax kon soxna si lii moo taxoon waxtuwam yëpp mu koy sànq ci internet bi ba commencé tayeel ci ak jaamu yàlla daal di toog ak soxna si daal di koy wax ne yow kat jot na sëkk nga teqali ko ak lii ndax suñu boroom mi ngi la doon suturaal diir bu yàgg-yàgg ndax jëf ji bi nga ko yàggee jëf yàgg na lool war nga am kersa sa digg sa boroom bu baax a baax a baax a baax a baax julli yi nga doon def bu fekkonte ni loo doon wattu la di ko def te yàlla rek tax kon jëf ju ñaaw ji doo ko def ndax julli day teqale nit ki ak jëf jëf ju ñaaw fekkoon na nag ñu am benn doom bu góor waaye nag ci loolu ci la ko borom këram gi daal di fase mu ñibbi kon ñu gis ne bariwaat na ay sëy yu bare bari yoo xam ne mi ngi yàqu di tas te mi ngi sababoo ci li nga xam ne moom mooy wàllu internet kon ñu bàyyi xel ni ñuy jëfandikoo ci wàllu internet bala mu ñoo yàqal lu bëree bëri wasalaamualeykum wa rahmatullah aouzu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ab waay la woon boo xam ne ab jaamukat yàlla la woon ab julit la woon mu amoon ab dëkkandoo boo xam ne daawut julli daawut woor daawut jaam yàlla waaye ji nga xam ne ab jaamukat yàlla la woon te jamono yooyu mu nekkoon ci waaj ngir dem Màkka ngir def umra jénn guddi mu tëdd bay tëdd ci biir nelaw yi am lu ko feeñu daal di koy wax ne sa dëkkandoo bi nga xam ni du julli du woor booy dem Màkka di umra na ko yóbbaale gént jaaxal ko lool waaye taxul sax mu def ci lool ñaareelu guddi ga mu géntaat ko mu feeñuwaat ko daal di koy wax ne sa dëkkandoo bii nga xam ne du julli du woor bay dem màkka di xumra na ko yóbbaale waa ji bi mu yeewoo mu dem seeti boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy firi gént ci dëkk bi mu wax leen lim gént boroom xam-xam daa du koy tontu daa du koy wax ne lii nga gént de bu ñettee xamali kon waa ji danga ko war a yóbbaale makka bay xumra mu géntaat muy ñetteelu yoon bi mu xëyee mu dem fa nga xam ne fu la dëkkandoom ba dëkk daal di koy laajte ba gis ko daal di koy wax ni bu may dem màkk dama bëgg nu ànd man ak yow ngir def umra dëkkandoo boobu nga xam ni du julli du woor daal di koy wax ni waaw koo xam ne du julli du woor naka lay demee màkk naan lay def umra waa gi ne ko waaw loolu amul problème soo bëggee mën naa laa jàngal ni ñuy jullee jàngal la ni ñuy jàppoo ba nga mën a dem màkka umra ci la tàmbali nag di ko jàngal ni ñuy jàppoo di ko jàngal ni ñuy jullee gannaaw bañ noppee ci loolu min nga kon waajal nag bi dem màkka ngir omra ci lañ dem màkka nag daal di def omra bañ def faratay omra yëpp a ñibbisi waaye ji nga xam ne ab jaamkat yàlla la woon daal di koy laaj ne ko waaw ndax am na leneen loo bëgg a def gannaaw bañ noppee ci farata yi mu daal ne ko waaw bëgg naa dem ci maqaama ibrahim julli fa ñaari rakka balaa ñoo dem ci la dem biir julli gi fa ko suñ boroom moomee ci biir sujjóot bi mu faatu foofu ci biir sujjóot bi waa gi daal di yéemu lool moom jaamu ko ci yàlla bi daañu waa man kii maa ngi ko gis ci gént rek ci lañ ma ko ma indi ko fii ci Màkka ngir def omra mu ñëw fii ci maqaam Ibrahim di julli far suñ boroom moom ko ci sujjóot bi lii di am na secret bu rëy bu nekk ci ginnaawam waa ji delloo ab dëkkam daal di dem ci famille yi nga xam ni mooy dëkkandoom bi daal di laaj ne ko waaw yow sa borom kër lan moo nekkoon ay mbiram lan la lan la daan def mu ne ko waaw comme ni ko xamee ñëpp xamee ko ni rek moom daawut julli wut woor waaye nag amoon nañ benn dëkkandoo boo xam ni ku lottu la woon ku néewoon doole la woon sama borom kër daan na ko dimbali ki di ko yóbbul ndékki di ko yóbbul añ di ko yóbbul reer bët bu set màggat mu ñàkk moom daan na ko ñaanal nag saa bu ko joxee ñam bi daan na ko ñaanal yàlla na la suñu borom may rafetug mujj kon mbokk yi ñu gis ni joxe aw ñam wala dimbali ak donte nekk ko ab jullit dimbali dimbali waat ne sa mbokk sa mbokkum sa mbokkum doomu aadama bokk na ci li rafetal ak mujj te suñu borom mi ngi wax ci alquran alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi thumma la yutbicuuna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun suñu borom mi wax ci alquran ñi nga xam ne day seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñooñu day duñu gis benn njàqare duñu gis benn musiba te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni daawu mardaakum bis sadaqa dee leen saafara seen tawat tawat yi ci li nga xam ne moom mooy sarax ab waay la woon bu masoon a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim ñëwee wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko digal moom ma njaaloo saxaaba yim fa fekkoon jàpp waaja mel ni lu koy bëgg a dóor yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ni leen bàyyi leen ko biñ ko bàyyee mu wax waajoogi ni ko jege sil jege si ma bi ko waajooju jegee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw njaalo jooju ngay wax ma digal la ko ndax bëggoon nga ñu def ko kenn ci sa yaay waa gi ne ko giññaa ci yàlla loolu moom bëgguma ko yenent bi ni ko ni ñëpp bëgg nañu seeni yaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ko ni ko waaw jaalo boobu ngay wax ma digal la ko ndax bëggoon bëggoon nga ñu def ko kenn ki sa doom yu jigéen yi mu ne ko déedéet gën ñaa ci yàlla loolu moom bëgguma ko yenent bi sallallahu alayhi wa ne ko waaw nit ñëpp dañoo bëgg seen doom yu jigéen yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat waaji ne ko waaw ndax jaalo boobu ngay wax ma diggal la ko ndax bëgg nga ñu def ko kenn ki sa mbokk yu jigéen yi moo sa mag la wala sa wala sa rakk waaye ne ko gin naa ci yàlla ni loolu moom yow yonent bi loolu moom bëgguma ko yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko waaw ni ñëpp bëgg dañoo bëgg seen mbokk jigéen ñi bi sallallahu alayhi wa sallama laajaat ko ne ko waaw ndax njaalo googu ngay wax ndax bëggoon nga ñu def ko kenn ci sa bàjjan yi waaye ko gin naa ci yàlla ni loolu moom bëgguma ko yonent bi ne ko waaw ni ñëpp dañoo bëgg seeni bàjjan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ko ne ko waaw jaalo boobu ngay wax ma digal la ko ndax bëggoon nga ñu def ko kenn ci sa tànt yi waa gi ni ko déedéet loolu moom gin ñaa ci ni loolu moom bëgguma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw nit ñëpp bëgg nañ seen tànt yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël loxoom yu tedd ya daal di koy teg ci kaw waa ji di wax baat yi allahumma dan danbahu wa tahhir qalbahu wa xassin farjahu fa wax ne yow sunu boroom maa ngi lay ñaan waa ji yàlla na nga ko jéggal ay bakkaaram ti yàlla na nga laabal ab xolom te yàlla na nga ñoŋal ab pëyam gannaaw loolu yi nekk waa ji mësta njaalo ba nim béjjaawee wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu doxoon ci diggante góor ak jigéen góor ga mi ngi tudd Usaama jigéen ka mi ngi tudd Marwa ñoom ñaar dañoo bokkoon benn entreprise bu ñuy liggéeyee ñu gisante fa nag daal di bëggante Usaama yàlla dafa dogal ci moom mu nekk koo xam ne ku ñàkk la famille ñu ñàkk la ñu amuñu dara Marwa yàlla xéewale ko mu bokk ci famille boo xam ne famille bu woomal lanu famille bu bari alal lanu Usaama xam na ne bu demee ci famille Marwa di ko ñaan duñ koo may ndaxte moom mi kat ku ñàkk la amul dara mu daal di wax Marwa ni ko man day xam naa ni bu ma demee say mbokk di la ñaan duñ ma la may parce que man kat ma dara waaye nag kenn ci samay mbokk faatu woon na ay jamono bàyyi woon na fi ak kër gu rëy rëy goo xam ne jamono yii nekk mu ngi ci loxoy yoon buñ ko àttee la ma ci am danaa la ci mën a jël appartement danaa la ci mën a takk waaye balaa loolu agsi mag yow dañuy mel ni rek koo xam ne ay jëkkër ak jabar lañu lépp loo xam ne jëkkër ak jabar mu ngi koy def rek ñu koy def man ak yow marwa daay d'accord ci loolu ñu nekk ca loola ba suñu borom dogal marwa ndawam daal di dem bi nga xamante si ni marwa ñàkk na ndawam nag usaama loolu mu doon séentu gannaaw ñaari at loolu mu doon séentu ci kër googu nga xam ne bu ko yoon àttee mën na caa am dara far yaakaar googu daal di yàqu ñu àtte ko far far usaama amu ca dara mu daal di wax marwa ne ko man day la ma yaakaaroon ci niñ daana sama takk loola mujj ma caa ndax àtte nañ kër ga te awuma ca dara kon xam naa man ak yow moom dañu mujj teqali ko rek nga dem seeti leneen ci diir boobu Marwa am beneen waay mbokkam bu fa ñëw di ko bëgg Maare xalaat di mu mi kat ndawam dem na fekk itam Usaama waxoon na ko ni sa ndaw gii dem dana la si jàppale dana la dimbali ba mu dellu si waat mu daal jël téléphone am nag daal di woote daal di woo Usaama ni ko mag yow lañ dëlante woon nanga ko matal ndax waxoon nga ne danga ma dimbali ki sama ndaw gi ba mu dellusiwaat kon matalal dël boobu Usaama ko man de maag yow fi mu nañ demal rek ma dem ma xool lañu ma dem seet la daal am lu ko naqari lool te buggul ji raw ko maa dem ci benn xaritam bu jigéen daal di koy wax secret bi nga xam ne dox na diggam ak Usaama fiñ jaar yëpp xaritam boobu ni ko ah danga la dimbali daal di koy yóbbu ci benn clinique clinique boobu sax nekkul clinique boo xam ni bu yoon reconnaître la nekkul nekkul clinique boo xam ni clinique bu buñ war a fajoo la biñ demee waxtaan ak ba docteur ba xamal ko ni mankat man mën naa la jàppale ba sa ndaw dellusiwaat waaye nag ci sartu ma ak yow dara Marwa am lu ko naqari lool daal di rëccu lool daal di yuuxu daal di génn hôpital bi daal di génn clinique bi. xaritam boobu ne ko ah lii kay xamoon naako ko ndax en général ñu mel nii fa lañ fekk rek euh, nekkuñu clinique boo xam ne clinique bi gën reconnaître la fa lañ fekk rek balaa ñu laa fajal sa aajo faaw ñu sàkk ci yow dara Marwa daal am lu ko naqari lool daal di doon seq ak Usaama alaaqatu zawjiya boobu maro mii kat bëggul mm, waa ji raw ko di mbokkam mii mu daal di toog daal di xalaat ni ah naa ko ko wax rek gannaaw lii la suñu borom dogal moom naa ko ko wax rek lu ci yàlla dogal rek baax na mu daal di wax Marwa daal di waxtaan ak waa jooju ni ko man kat sama ndaw dafa dem waa gi ni ko daa la jàppale daa la nëbbal sa secret bi du ma ko siiwal waaye nag man du ma nekk koo xam ni damay nekk jëkkër ci damay nekk ñaareelu jëkkër ci benn jigéen الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokki lii ab waay la woon bu tudd Saabit ibn Nu'maan nekkoon koo xam ne dalaa jàng xam-xam waaye nekkoon koo xam ne itam ku ñàkk la jàng xam-xam rek ma nekkoon yitteem benn bis mu nekk ab këram xiif xaw koo rey mu xiif lool amul lenn lu mu lekk mu génn pour ngir di wër loo xam ne dana ko jëfandikoo am doxee ba yàgg mu gis benn tool bu mag benn toolu pom mu xool ca bànqaas ya bànqaas yëpp am ay pom mu xalaat ni teemaay jëfandikoo ci pom yi mu daal dem téye benn pom ca pom yooyee di xalaat ndax da ko war a lekk walla déet ndax xiif xaw na ko sonal lool ba yàgg mu witt pom be daal di lekk genn wall ga ba mu lekk genn wàllu pom ba ba noppi fekk am na jenn dex bi nekk ca wet ga dem fa di raxas ay loxoom ba mu loxoom ba noppi nag daal di xalaat ni dakk moom pom bi mu lekk lekkat nekkul loo xam ne moo moom nekkul alalam mu daal di rëccu sàggante googu nga xam ne def na ko te mooy lekk pom boo xam ne moomu ko mu daal di dogu ni fii ma nekk li bu ma fi jóge mukk lu may ni borom tool def ma fekk fii ba ma jéggalu ko mu bal ma mu soog a dellu ba mu fa toogee toog fa ab diir borom tool ba daal di dikk ba mu mu gis ko ma daal ni ko waaye yow ana lan may sabab sa toogaay bi fii ana lu tax nga nekk fii mu ne ko man ne damaa romb fii aw xiif xaw maa rey may naa jëfandikoo ki pom yi ba may lekkee genn genn wàllu gi nag ba noppi sama xel dem ci ni dakk man lii ma doon lekk nekk sama alal moomu ko may naa toog fii ba borom tool bi dikk ma jéggalu ko ndax mu baal ma borom tool bi ne ko mukk du ma la bal baal du ma la baal bi laa yawmi diin ëllëg yawmal qiyaam daañu ko layoo ci kanam suñu borom tabaaraka wa taala am am amuk jaaxle lool am na ko metti lool mu daal di rëccu mu daal ni ko léegi jan jëf nga may sant ma defar la ko ngir nga ngir nga ngir nga mu ko déedéet du ma la jéggal du ma mukk yow ma xam daan ko laayoo sama kanam sama borom mu daal di euh, boroom kër gi daal di fatu duggaat ci biir këram Saabit ibnu Nu'maan nekk foofa di jooy ak di xalaat boromam lii ana lan moo ko ci mën a fekk ba julli tàkkusaan waxu tàkkusaan boroom kër gi daal di génn bi mu génnaatee gisaat ko mu toog foofa di jooy euh, mu daal ni ko euh, Saab ibnu ma ni ko léegi euh, damay toog fii di la liggéeyal bu ilaa yum din ba keroog may faatu rek ngir nga jéggal ma ba nga xamante si ni waaye ju waay ji dégg na loolu nag mooy borom tool bi ma xam ne kii kat ko ragal yàlla mu daal ni ko mën naa la jéggal waaye nag ci sart nga takk sama doom mën naa la jéggal waaye nag ci sart nga takk sama doom daal di ko nag man sama doom dafa am ay sikk yoo xam ne dafa nekk ci moom ndax sama doom du jigéen du dégg du gis mënta wax daa lu euh, Saabit ibnu Nu'maan it am lu ko am lu ko jaaxal lool naka lay takkee wala naka lay dëkkeek soxna soo xam ne dafa am melokaan yooyu yëpp ba yàgg mu xalaat ni takk soxna si nga xam ne dafa am melokaan yii day moo gën a woyof ci man fuuf ma deewaale ak bakkaat bi sama bon subhaanahu wa taala di duma ci mbugal ba tabal ma ci biir sawar ay sax di lekk wala ay ay jaan di lekk samay butit takk soxna si ak melokaanam yi moo gën a yomb ci man euh, ba mu xalaatee loolu daal dem ci borom taw bi ne ko léegi nangu naa nangu naa takk sa doom jooji borom taw bi ko waaw léegi da dem ba alxames ji ñuy jëm incha allah boo ñëwee euh, nu fasal ko waaye nag euh, lépp loo xam ne war na ci ay can man maa ko warlu maa koy def incha allah saabit ibnu naxmaan daal dellu ba alxames jotee mu di ñëw ba mu ñëwee maa di fëgg bunt bi ba mu fëggee borom tool bi ubbil ko maa di ko ne maa ak jàmm euh, fasal na soxna si daal ko ñaanal suñu borom yal na yàlla barkeel seen diggante daal ne ko nag da ngay toog fii ba ma ne la bisimilah rek nga di dugg bi mu ibnu Naxmaan daal di toog foofu di xalaat ci melokaan yi nga xam ne euh, borom kër gi wax na ko ko ak ne ko soxna si noonu la mel te mooy du dégg. Euh, du gis mënta wax ku luula ba yàgg mu ne waa laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim maa ngi ñaan sama borom mu jéggal ma ta fay ma euh, ba ko ne ko saabit ibnu Rahmaan bismillah mën ngaa dugg ba mu duggee maa di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah daal di nuyoo daal gis soxna si euh, soxna si doon ko rafet ko taaru sikk yam ko doon wax yëpp ndake nekk ci moom mu ngi mu ngi xool soxna si mel ni ku jàkkaarloog kenn ci xóorul ayni ngir ak taaroom ak rafetaayam euh, borom kër gi daal di ko jébbal ñu daal di toog daal di daal di waxtaan daal di waxtaan euh, saabit ibnu Nuxmaan ni ko waa yow lan moo tax sa baay ni ma yow kat doo dégg doo gis euh, te doo tam te mën a wax mun ne ko waaw sama baay de fenul ku wax dëgg la ndax man du ma dégg du ma du ma wax ndax man wax ndax ma wax lu xaram du wax kenn koo xam ne daganu ma du ma fen du ma jëw du ma dégg tamit du ma déglu lenn lu xaraam du ma déglu jëw duma ma déglu rambaaj du xool lenn lu xaraam it ku xool lenn lenn lu xaram duma xool duma xoolante kenn koo xam itam suñ borom daganul sama diggante ak moom euh, yàlla daal di barkee seen diggante gannaaw bañ amee at nag yaa di am ab doom doom joojee mooy Abu Hanifa an-Nu'man di borom mazhab bu mag boobee ñëpp xam ko moo tax suñu borom wax ci alquran ni man amila salihan min dakrin aw unsa wa muminun fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba wa najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun suñu borom wax ni képp koo xam ni moo xam muy góor moo xam muy jigéen jëf na jëf ju baax rek suñu borom dana ko dundal dund gu teey te ëllëg yow mi xam yàlla dana ko teewal gën ngaa rafeti am am fay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tijaan nekkoon ku am yar ku am diine. benn bés nag mu toog téléphone am daal di koy yee mu wuyu ci lañ ko xamal ne ay waajuram dañoo def soog te mujj nañoo faatu xale bi mënut a boppam ci ginnaaw bi mu déggee boobu mu daal yuuxu daal di na man mii nag mujjee naa wéet ginnaaw bi nga xam amatuma kenn te samay at demewul noonu ginnaaw bi mu fàttalikoo ay bay taxam nag xelam daal di dal mu daal ne ci yàlla lañu jógee te ci yàlla rek lañu delloo. mu jël mbiram yépp teg ko ci loxo yàlla subhanahu wa taala ginnaaw benn waxtu nag ci heure yi añ kenn ci bàyyi taxami daan dafa bëgg wax ak moom mu dugg ci bureau baayam bi fekk ko fa ak soxnaam ñu koy xamal ne miraas bi dañ koy teg ci yoon comme ni ko charia digalee xale bi daan buñ dugg wax ci loolu bàyyi nañ bàyyi ba heure ba jot ginnaaw ñetti fan nag ñu def seen réunion bàyyi taxami ak avocat bi ak xaritu baayam bi nga xam ne ba muy xale ba tey ñu ngi ànd avocat bi daan na xale bi man yow laa àndal te duma la mës a bàyyi ba mukk te sa bàyyi sax dafa menoon na ko xamoon ne bés bi dina ñëw ba léppam da koo organiser ci la ñu commencé di lire test bi nga xam ne baayam da ko fee bindi bàyyi ko fi mooy xamal ne immeuble mag bi nga xam ne bàyyi na ko fi da koo def ci turu xale bi ak bépp alal bi nga xam ne nekkoon na ci banque bi tamit da koo def ci turu xale bi toolam bi tamit def na ko ci turu xale bi rek bàyyi taxam yi daal di jukk daal di yuuxu daal ne loolu du yoon paa bi li ñu moom dañu ko xañ te dafa sàcc sunu àq ak sunu li nga xam ne ñoo ko moom ci miraas bi ñu commencé di yuuxu xale bi di ko gëdd naan kana nga ñu delloo lu moom ci miraas bi avocat bi xamoon na leen lépp loo leen fi def rek te wut ak yoon damay woo léegi police bi rek ñoom ñëpp daal di nopp ba ñëwee ci biti nag ñu ngi xamal na xale bi ne bay boo nga dem seet yeneen mbokk yu dul ñun ñun de pare nañu ci yow xale bi daal di leen ci ak dal ak kontante ginnaaw bi nga xam ne bésu miraas bi jot na mu daal di wax avocat bi ne miraas bi dama koy def ci yoon. comme ni ko charia digalee mu fàttali ko wax ji nga xam si ne yàlla waxoon na ko ne na ngeen maytandikoo ñi nga xam ne dañuy wuute seeni mbir te fitna mën na leen see dal wala ak mbugal gu tar mi fàttali ko tamit xadis bi yonent sallallahu alayhi wa sallam daan ne képp ku jël lu paxu suuf te moomoo ko bu korog yow mal xiyaamee yàlla dina la jéng lu toll ak juróom-ñaari suuf mu delloo ci ay baytaxam yi xamal na leen àddina ak alal ak lu ci biir ñoom ñoo ko gënal te moom mënut a dund te amul ay ngërëmu bàyyi taxam te miraas bi dina ko def ci yoon comme ni nga xam si ne sariya digal na ko bàyyi taxam yi daal di kontaan daal di koy gërëm ñu daal def miraas bi comme ni ko yoon digalee ginnaaw ay bés nag doomu bàyyi taxam bi nga xam ne dafa tukki woon. te da ko bëggoon a def soxna daal di dellu si waaye am na kontaan bi bi mu gisee xale bu jigéen bi mu dalal ko ñuy waxtaan xale bu jigéen bi nangu pour sëy ak moom ginnaaw bi nga xam ne xale bu góor bi waxaat na ko ci lu mel noonu ñu yeggale seen dund yeggale seen yéene ñoom ñaar xale bu jigéen bi dund ci ak dal ak kontaante ak mbégte rek liñ mën a jàngee ci histoire bi bari na ki nga xam ne dafa faatu bàyyi fi alalam nañ ko séddale comme ni ko yoon digle te képp ki nga xam ne dafa waroon a am ci miraas bi rek nañ ko ko jox jox ko ak xam jox ko li nga xam ne si ne yelloo na ko te nañ di fonk suñu mbokk bu ñu alal gënal mbokk te mbokk alalu yàlla la nañ ko sàmm li nga xam ne nit ki am na ko ci miraasam nañ ko ko jox moo gën ñu ko koy xañ dafa amoon benn histoire bu fa xewoon ci xale bi dool ci fukki at ñu koy woowee Rame Rahma nekkoon koo xam ne dafa fonkoon waxtu julleem te daka daan julli ci heure bu jotee dund ak fameem baayam ak yaayam ak maamam nekkoon ku bëggoon maamam loolu te lu ëpp ci waxtoom da koy nekk ak maamam benn bés nag baayu Ramir daan ne néeg bi nga xam ne baayam dafa nekk mi maamu Ramir du ko bu ko jox benn rakki soxnaam bi nga xam ne dafa nekk bitim réew te léegi mu ñëw mu dugg ci néegu baayam pour wax ko mbir moomu fekk na Ramir ci néeg bi daal di koy xamal ne. dama laa gis nga wéet fan yii yëpp te damaa ragal wéetaange googu nga nekkee te sama xarit yi sax ñi ngi naan ne am na benn kër goo xam ne pour ñu màgget ñoo ko tax a jug màgget ñu mel na yow rek raam bi daal di yéemu ci waxi pàppam jooju comme ni maam fu aat yéemu ci waxi pàppam jooju mu daal ne ko d'accord naa yow sama doom bu subaa nga yóbbu ma fa raam bi ne ko bu subaa boo leen dem dina ànd ak yéen waaye ginnaaw ma réviser sama leçon ba pare. ba ñu xëyee suba ñoom ñetti ànd dugg ci oto bi di dem waaye waxtu rek lañ am ci yoon bi daal di yegg ba ñu yeggee ca boobee kër ñi nga fekk ca bunt ba ñu bind fa daara pour ñu màgget ñi rek paa bi yéemu comme ne raami yéemu ci boppam di wax ci xelam ne sama baay da bëggul leen pour tàggale ko ak sama maam looloo tax mu àndi ko fii waaye gis-gisu baayu Ramir du lenn lu dul papaam des daara jooju te du ñëwaat ca këram rek mu gaaw profito yéeg ci oto bi rek gaaw taalaat oto bi bañ yéegee ci oto bi Ramé daal laaj baayam yoon bii ñu awoon nu mu tudd ak quartier bi nan la tudd papaam na ko lu tax nga laaj ma boobu mbir Ramé tontu ko ci ak dal ne ko dama la fee bëgg a indi comme ni nga fi indee sama maam xanaa waxu na fii pour ñu màgget ñoo ko tax a jóg te yow ëllëg boo màggetee ma andi la fi rek paa bi taf loxaam bi ci kanam di jooy ak réccu gu mu yóbbee papaam foofu daldi di fàttali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu xamalee ni waajur yi ñooy dëgg buntu àjjana ñu sàmm leen baa ñu bañ leen a sàmm buñ leen sàmmee rek leen dem àjjana waaye buñ leen sàgganee rek gis njëriñ bi ba tey it paa bi dañut ci di xamal ne dafa réccu pour lu mu yóbbee baayam ba foofee bañ delloo ca kër ga mu dugg ci néegu baayam bi gis sa kaw taabal bi benn leetar bu mu bind di ko xamal ne yow sama doom dama laa bëgg comme ni ma bëggee sama bopp te la waxtu yu gën a neex sama àddina mooy bi ma daan dugg sa néeg te yow nga nekkoon xale bu ndaw ma daan jóge sama liggéey nga dem a gàttandu ma daan la indil yi nga xam ne danga koo bëggoon wala gato yi nga xam ne danga koo sàkk woon ci man waaye waxtu yi gën a ci man mooy bi ma daan yóbbu sama liggéey nga xotti foo yi nga xam ne dafa amoon solo lool ci man waaye dama daan ree lu gënoon a neex ci man it ba nga màggee malaan jox xaalis nga jël yére yi nga soxla waaye man may sol ay dàll yu xotteeku palaas ca palaas waaye yaakaaroon naa ne sama njeexantalu dund day nekk ci am mbëggeel ak cofeel ci sa wet waa du nekk am mbañeel ak di ma sori man ba tey bëgg naa la te ndañ ma di la bëgg bëgg gi ma la bëgg dem na ba fees sama xol waaye maa ngi dem sama këru mag bi nga xam ne sàkkoon na ci man ma ñëw dëkk ak moom waaye cofeel gi ma am ci yow ak ñeewantal gu tar looloo tax mënuma laa bàyyi dem dëkk ci moom hadiya bi nga xam ne si ne yàlla jox na la ko mooy sa doom Raamir gisuma ci àddina nit ku ko gën ginnaaw ba mu liire lettre bi ba pare nag jël na kanamam ga taf ko di wër taf bopp bi di yuuxu ci néeg bi baal ma yow sama baay baal ma yow sama baay mu dellu ca kër ga jël jiwaat baayam ba andi ko ci kër gi waaye jour boobu kenn mënu laa wax neexu Ramil ak mbégteg Ramil ci ba mu gisaatee maamam dellusiwaat ci kër gi jàmm rek dox seen diggante liñ mën a jàngee ci histoire yi mbokk yi bari na nañ leen fonkaat suñuy waajur yi ndax amuñu ci àddina lu leen ëpp amuñu ci àddina lu leen sut ñoom ñooy xarit yi nga xam ne duñu mën a weccee ak lenn lu ñu am lu ñu neex ak lu ñu naqari ñoom ñoo njëkk a taxaw te ñoom lañ njëkk a gis nañ leen di fonkaat suñu waajur yi. Gueule Ngalle TV site bi gaa yi di yefal mu nekk télé ko xeeb kaay benn waay ji bëggoon benn xale bu jigéen ñoom ñaar ñu nekk nekk bu rafet ba xëy bés mu takk ko ginnaaw bi mu ko takkee nag at rek la am ci sëy bi ndaw si daal di am doom bu góor ba doom ji amee juróomi at. baay ji daal di wax yaay ji dama bëgg man ak yow ñu def benn tukki ci boto bi pour nga fàtte sa mettit yi nga am ñu jël doom ji dénk ko maamam ginnaaw bañ tàmbalee seen tukki bi ba yéeg ci boto bi ba dooto bi daw rek ba ci ndox mi boto bi daal di suux te ci biir boto bi benn gilet rek moo fi nekkoon baay ji daal di koy jël wodd ci biir ndox mi yaay ji di ko yuuxu naan ko na nga sàmm suñu doom te nanga ko téye ca foofee rek ci la boto bi suuxee yaay ji daal di ba baay ji dellusi si kër gi daal di téye doomam ji marwaan bi nga xam ne moom rek lu ko yàlla dénk ci doom ba doom ji màggee nag mu xam ni yaayam faatoo mu tàmbale di ñaaw njoot ak xol bu bon jëmale ko ci baayam noonu la continuer ba ni muy demee université di jàng benn bés nag ki leen jàngal dugg ci kalaas bi ki leen xamal ne tey ci li may waxtaan ak yéen day jëm ci mbir yi nga xam ne day feeñ sunu kanam rek waaye sunu xel du ko nangu te leen ci jeex jaaxal ci la nettali benn histoire bu fi amoon benn xale bu feebaroon baayam yóbbu ko hôpital mu dem ba ci hôpital ba docteur bindul ko benn opération boo xam ne amul xaalis bum ko fajee ci la woowee rakkam mu sàkku ko alal bu toll noonu rakk dina ko may ma benn waxtu rek dinaa la indi xaalis bi mu xaar ba sonn gisul rakk ji mu woo ko jotu ko mu waat ko xam ne téléphone dafa fay mu woowaat ko même résultat bi mu amoon rek. changé wul mu tàmbal di wax sama bopp lu tax sama rakk ji ñaane ma ak lu tax mu may daw waaye du ko masa baal bii jëf mu ma def tey ba mu tàmbale di mer nag ak a tiit ak a njàqare ci la dégg sone mu daal dem ib bunt bi daal di gis rakkam gi indaal xaalis bi nga xam ne sàkk woon na ko ci moom rekk ji naan ko maa ngi jéggalu ci tarde bi ma amoon sama téléphone dafa fayoon looloo tax sax xam naa déggante wuñ mu akolaat rakk ji di jooy foofu jooy yi métt di fàttali ko xadis bi yonent sallallahu alayhi wa sallam naan bàyyi leen di ñaaw njoot ndax ñaaw njoot muy indi ay wax yu bari xale bi ba kuur boobu jeexee mu ñibbi ci kër gi mu tàmbali di féexi xolam bi ci jeexi jaax gi nga xam ne teewoon na ko ci papaam muy xool bagage papaam yi pour génnee photo yaayam ak photo baayam yi pour xool ko ci la gisee benn lettre boo xam ne baayam da ko fee bind woon di xamal ginnaaw bi ma dajalee docteur yépp ci àddina pour sa feebar bi yow sama soxna pour nga mucc ci dee loolu tax moo taxoon ma jël la pour man ak yow ñu def tukki ci bato bi pour nga fàtte sa feebar bi nga xam ne amoon na ko waaye rek yaakaar daal di tas bato ba suux waaye ak neexoon man ak yow ñu deewandu bis boobu noonu waaye sunu doom ji rek a tax man ma sauvé bàyyi la foofu waaye ak maam bébatoon man ak yow ñu dundandoo. ba nit ñi deewee ak maam bis bi nga xam na si ne la boto bi di suux man ak yow ñu ànd fa waaye aw ma pexe lu dul sunu doom ji wéetaanga bim nar a am te foofee nag ci la doom ji jooyee jooyi met baayam dellu si liggéey bi rek mu daw akolaat ko ne ko baal ma yow sama baay soo xoolee lépp rek ñaaw njott moo ko indi kon mbokk yi nañ leen bàyyi di ñaaw njott lu ñu xamut nañ dem laajte ba pare balaa ñoo indi ñaaw njott nit a ngi bañ nit te lenn lu du ak ñaaw njot moo ko waral nit a ngi ñàkk a tudd nit te lépp rek ñaaw njot moo ko waral nañ leen bàyyi di ñaaw njot